télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu édition spéciale ni ko tàmbalee ci suba gis ngeen ko ak Mamadou Ibra Kane euh, mu nekk émission yoo xam ne ay émission spéciale la li ko waral nag xam ngeen ko ndax ni ma koy waxee rek euh, lu yëngu lu nekk xam ngeen ni la ko yëngal daf ko ëpp doole lu jëm nag tey ci réew mi. loi boo xam ni loi bu bu bu indi coow la euh, loolu la ñuy voté ci assemblée nationale loolu ak la ñuy waxtaanee itam. fii ci télévision Futur Média tàmbali ko ak Mamoudou ak ay invité am noonu nag euh, ci dynamique boobu la ñuy continuer ndax itam ku ne xam na ni euh, télévision future Média moom mooy seetu askan wi kon bëgg nañu lépp loo xam ni moom mooy xew ci askan wi askan wi di ci gis seen bopp loolu moo waral itam euh, ñu daal di continuer euh, édition spéciale yi ak yéen ba keroog vote bi ci assemblée nationale ñuy xam fan lay mujj euh, ci noonu ñu di ci ànd ak Maodo Malick mbay moom mi ngi bokk ci mouvement présidentiel bi Benno Bokk Yaakaar waaye itam jiite mouvement am di gëm sa bopp maa ngi lay nuyu monsieur Mbaye. ñu ngi lay fay euh, Pape Ngagne euh, ñu voilà ñu ànd ci ak Nafi Diallo moom itam bokk ci cadre kàngam yi nga xam ni ñoo nekk ci parti démocratique Sénégal. ñu ngi lay nuyu Pape Ngagne ñu ànd ci ak Fadel Barro moom itam bokk ci ñi nga xam ni ñoo taxawal ŋànk euh, kuréel gi di Yanamar maa ngi lay nuyu Fadel. maa ñu ànd ci ak njiitu Parel. Euh, di partie boo xam ni sos na ko moom Oumar Sarr euh, moom itam fare ci mouvance présidentielle bi nuyu naa la monsieur Sarr Oumar. waaw ponk bi ni ma ko waxee rek dañu nekk ci benn loi boo xam ne dañuy dégg sax juriste yi di wax naan euh, dafay consolider suñu démocratie ñu la jàpp safaan bi da koy déconsolider ñu bëgg a xam yéen ñi toog. fan lañ koy féetale ndax luy dëgëral suñu suñu suñu suñu constitution la wala suñu démocratie euh, ma bëgg a xam njëkk monsieur Sarr lan nga ñu mën a wax ci loi bi aju ci wàllu parrainage. Euh, jërëjëf euh, Papa tey. Mhm. nuyu ngi ci weeru weeru avril. 2018 histoire politique wala histoire constitutionnelle bu Sénégal bu mu tàmbalee yàgg na mhm. lii nga xam ne moom lañ tudde tey parrainage su ma yeboo ne mi ngi gane ci suñu système 1960 euh, muy benn poñ ñu demaat ba 67 ñu laalaat ko mhm. demaat ba 1991 ñu laalaat yàlla dogal daaw ci atum mu yeboo sax ne daaw jéeg ñu def fi référendum euh, ci biir référendum boobu ñu waroon wax waaw wala déet ci constitution révision constitutionnelle boo xam ne bii président de la république moom amoon na yéene jàllale mhm. mu am lu ñu seetlu ci biir constitution bi mooy dañu joxaat askan bi maanaam citoyen seen gëdd mhm. le renouveau de la citoyenneté mhm. am naa ko tudde noonu maanaam ñu ñu beesalaat dooleel citoyen yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal mhm. ma jàpp ne pour dooleel leen jox leen seen gëdd jox leen seen cër ba mu mat mhm. mooy nga yemale leen ñoom ñëpp d'abord benn nga sàmmal leen aussi li ñu moom nga yemale leen mooy tey liy wax ji mooy kan moo mën a doon candidat ak kan moo ko mën a doon. Mhm. su ma ko jëlee exemple rek ci làmb ji. pour que yi gën a ma comprendre. mbaa du gën a grave boo ko yóbboo ci làmb xam nga lu tax. waaw xam nga roi des gën a grave nga xam nga roi des arènes. ñu gën a grave de. waaw rek bu ma paree di nga xam ni. d'accord xam nga tey roi des arènes. Mhm. Euh, daf VIP yi rek ñoo ci mën a dem. du ku mu neex rek dem ne damay dëkk. am Ama Sène wala Bombardier wala Modou Lo et cetera et cetera parce que itam suñuy wut combat day nekk combat yu ko jàpp jàpp ne filtre boobu ñu defoon depuis 1963 ki nga xam ne moo fi nekk tey président de la république mhm. ni mu amee ay projet infrastructure amee ko ay projet ci santé am ko ci éducation mhm. dañ ko am aussi ci suñ bonne gouvernance démocratique ak de bonne gouvernance politique Mm-hmm. muy responsabilité bi ñu seetloo li xew ci élection locale yi ñu seetluwaat li xew ci élection législative yi ñu jàpp ne sàmm li nga xam ne mooy alalu askan wi bokk na ci ñu xam. kan moo mën doon candidat ak kan moo ko mën. d'accord kon daal jàpp nga ni loi la buy gën a dëgëral suñu démocratie. maanaam loi. non seulement du koy gën a dëgëral. Mhm. mais day gën a tax Sénégal. Mhm. yeneen réew yi. d' bu ñu paree ñun. Mhm. yeneen dinañ ñu topp. Fadel ndax jàpp nga ni démocratie dafay riime ak filtre maanaam li nga xam ni moom la wax euh, damay faral ñu koy dégg ndax ànd na euh, démocratie bu ñu naan dañuy segg ndax loolu mën nañ ko jàpp euh, démocratie. baal ma tuuti balaa may dugg ci fond débat bi. Mhm. ma ma saw xale yi nekk ci tànn bi ba déggee ci mbedd bi. d' accord sénégalais yi nga xam ne ni ci mbedd bi. Mhm. di di ñaxtu. c' important am nañu ñu ñu bëri ñu ngi ci lacrymogène yi ñi ñu tëj leen jàpp leen. Mhm. sànq rek dama nekk ak ay ndaw yi ñuy ànd ak. ñu taxaw ci bopp koñ boo xam ne sori nañ sax fu ville nekkoon fu manifestation yi doon am police romb rek jàpp. xaw ma ne ñu toog kon xaw jàpp leen dóor leen dóor yu métti dóor leen leen dóor yóbbu leen ba léegi sax xaw ma commissariat yi lañ yóbbu ba mat sawul seen parents yi lu dara dul seen bëgg bi ñu bëgg seen réew mhm. te gën na seen démocratie foogoon nañu ne romb na fi mu toll bu ma bëggee dellu si ci ma bëggee dellu si ci li ngay sa question yëf yi du du du du du sax balaa ñu yëg ci fond mhm. doxalin bi ñu doxalin moo njëkk na saxal suñu démocratie Papa Gueye lan mooy suñu yoon ci coow li ñun ñi nga xam ne duñu candidat te amuñu candidat question la ñu war ñu mel ni Y'en a marre nga bokkuñu société civile ci biir parti amuñu candidat te waxuñ déclaré wuñu fenn te pare wuñu dem nekk président laaj bi lan mooy seen wàllu ci coow li lan mooy coowal wàllu citoyen simple yi jar na laaj lan mooy ci suñu wàll mhm. dañu foogoon ne suñu démocratie sénégalaise ñun mhm. bu doon nañ koy melokaanal mhm. dañ naan melokaanu démocratie sénégalaise moo waxtaan bu juboo mhm. mooy pencoo ndax la mhm. moo ñu muccal ci jafe-jafe yu bëri ba tey ñu di toll mhm. xëy na Abdoulaye Wade le 23 bu waxtaanee woon ak askan bi nu mu ko soxlaa woon ni mu ko waree woon ak subside bi xëy na ni kon lu mel noonu du am d'accord tey jii boo xoolee ñuy wax ñëpp ci loi bi dans le fond ba sorente wuñu mais xamal na moo nekk bu fekkee ne suñu démocratie toll na ci waxtaan ba jubóo ba législative yi passé boo ko ko Papa Gueye mhm. euh, da may baal rek ma ma jël Chérif Dia s'il vous plaît c'est important nga nga nga téye sa raisonnement foofu euh, parce que c'est important Chérif maa ngi lay nuyu euh, Chérif dafa mel ni dañu suspendroon audience bi waaye delluwaat nañu ci ci ci débat yi fi am baax débat moom xanaa beneen yoon waaye doon nañu fi débat dina fi am. ndax majorité bi leeral ñoom dañu voté sans débat loolu nag opposition bañ nañ ko mooy lan voté sans débat Chérif mooy lan. maanaam leeral ñoom daal bu Moustapha Cissé Lo moo proposé la mais fii daal lu ñu wax amul fii comme ñoom ñoo yor majorité bi te suba ba léegi ñu ngi ciy wax daal duñ dugg ci fond bi. loolu nag euh, après moo waraloon pause bi biñ posé lu mat une heure de temps ñëw opposition bi lànk loolu. suñ des fois de Moustapha Niasse moom day appliqué règlement bi maanaam day xool majorité bi bu dee ànd nañ ci kon affaire bi fii la yem maanaam dañuy dañuy tax tax ndax ànd ngeen ci projet de loi bi bu dee majorité bi nee na waaw dam koy adopté tout de suite bi maanaam duñ dugg ci fond bi maanaam parce que amoon na lu mat cent dix personnes yoo euh, cent dix euh, députés a buñ ko toppee minuit day jot règlement bi def ne minuit bu jotee dañu lever séance bi te a yemale tey moo taxoon nag ñu daal di lëlu seen biir waxtaan leen te jéego amul seen biir léegi ma dikkee ñaa ma ak opposition bi bu ngeen gisee ñu ci image yi kon ñoom jël nañ seen bagage parce que yéen boycotté lu des kon xam naa dañu bàyyi nag ñoom majorité bi fii ci hémicycle bi ñu daal di adopté tout de suite loi bi mu mel ni kon mbir mi daal lañ ci doon ragal du ci am maanaam dem ba mu tuuti di ko waral nag gis nga ku mel ni Toussaint Manga moom ak Ousmane Sonko ak député bi di Mame Diarra Fall ñoom ña nga nekk fee ca ca présidium bi maanaam gis nga leen ña ngay dem ñoom ñëpp di wër Moustapha Moustapha Niass xam naa dañoo ñàkk ànd rek ci dogal bii nga gis ko moom Aïda Mbodj ay ñoom maître maître Aïssata Tall Sall ak ay Fatoumata Safara ak Mamadou Lamine Diallo ngeen gis ni kon euh, maanaam lii daanaka euh, liñ koy gis ci assemblée bi bariwut moom kon dem nañ sax ca persoal ba fekk fa kii di Moustapha Niass mu mel ni kon daal Pape euh, fii ci hémicycle bi jaxasoo na trop ci débat bi nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu parrainage bi li ko waral nag muy rek kon réeróo bi nga xamante ne am na seen biir ndax majorité bi ci càkku téléphone Moustapha Cissé Lo nekk vice président assemblée nationale moom dafa bëgg ñu voté sans débat maanaam waxtaan yi bañ a xóot mais Moustapha Niass moom nee na sax débat am na ndax euh, li nga xamante ni moom mooy ay exception yu ñu ko doon soulevé ak ay préalable loolu jàppee débat la ko jàppee mais ñii di waa opposition bi nee nañ loolu du dee waan ay exception la mais dugguñ ci fond bi dëgg ba ku ci nekk joxe sa xalaat ndax ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy opposition bi lu mat dix neuf personnes wala nañ wax de dix neuf personnes yooyu ku ci euh, minimum di nga am cinq minutes majorité bi tamit euh, daanaka ñoom ñi inscrire loon ñu ëpp leen quatre vingt personnes ñoom ñëpp daal boo ko xoolee daanaka seen bu mu tolloon na ci téeméer ak fukki député yoo xamante ni ñoom a jël kàddu ñu ngi joxe seen xalaat ci projet ni buñ ko toppee daal mën mën nañoo weesu sax lii di zéro heure kon daal moom moo tax daal mbir gi jaxasoo fii trop ci assemblée nationale mu mel ni suba ba léegi daal li tubaab naan dialogue de sourds moo am ci diggante député majorité bi ak député opposition bi jëm rek ci interprétation règlement intérieur bu assemblée nationale ndax ñii nag fan la ñu mujj ak moom moom mooy fan la wax Moustapha moom mi nga ànd ak sérénité am dafa nekk suba ba léegi nag lépp lu mu fi dogal da doon tënku rek ci règlement intérieur ndax nee Cheikh ma dikkee ñaa gis ngeen ko cartable la mu mel ni ñoom ñi daal ak ñoom Ablaye Balde ak ñoom Déthié Fall ak euh, ñoom euh, Modou Diagne Fada daanaka nga gis ñu ngi nii di leen tàcc kon ñi bam lañ gars yi ñu ngi ci yoonu ñi bi euh, waa opposition bi kon daanaka boycott lañ na la def bu fekkente ne bu sabañas soppiwul rek dogal bi nga xamante ni moom la fas yéene jël jëm rek ci bàyyi leen ñu jël kàddu bi dugg ci fond bi di fàttali tamit ministre de ministre de la justice li nga xamante ne moom moo fi nekk di défendre loi bi tamit mu ngi fi toog waaye moom it comme mbir mi anti la moom dafa toog rek di observé di Ismaïla Madior Fall moom moo doon défendre projet de loi bi suba ba léegi xam naa rek euh, dañuy observé xool xam la mbir yi di mujj ñoom ñu nanu naka la nag ndax ñoom ñëpp jël nañ seen i saak te ba rek dama koon gis noonu sëñ Abdou Bara Dolly moom it ma nga ca sol lépp lu xonqam ak écharpam ak ñoom Toussaint Manga ak yeneen i député yoo xamante ni it ña nga ca perchoir ba fekk ko mu tabañes ngir rek xëy na wax ak moom ndax xel mi jël mu mën a bàyyi gars yi gudd ci fond bi waxtaan li nga xamante ne moom mooy kii bi dafa mel ni gars yaa ngi dem ndax uh, waaw Sonko ak uh, Toussaint Manga dafa mel ni ñoom daal luñu uh, xool ba xam gars yi ñu ngi dem ña ngay dem comme opposition bi dam na opposition baa ngay dem ñu ngay dem xanaa dañuy wiiri sax ñun ñii dem uti réaction xool ba xam lan moo waral seen boycott ba léegi eh, ñu doon noonu rek lañ def ab xanaa en attendant nga daal ñu à karga ay fële ca bunt ba xool lan moo tax euh, ñu daal di ni nii ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy député opposition bi ñoom ñëpp daal daanaka euh, fii fii nag moom biir assemblée dem dañ fii doon dàqe ak euh, gendarme yi ndax bi pas dafa am ay mesures yoo xam ne dañ ko jël bi pour nga dem ci au assemblée nationale koy tere ne ko naa doon doon bañ ay rassemblement mel mais ñu wut suñuy pexey bopp rek ba teew ko incha allah ngir xool ñi nga xamante ne ñoom ñooy député opposition bi lan moo waral ñu daal di boycotté lii di plénière bi fii ndaxte mbir yi moom euh, jaxasoo na jaxasoo boo xamante ni daal daanaka biñ koy gis fii bariwul journaliste yi kon ñu ngi ni ñoom it ngir ñi nga xamante ni ñoom ñooy député yi ndaxte fi mbir moom dafa xaw a compliqué compliqué yoo xamante ni daal euh, ndax stratégie bi tamit. Euh, Chérif defoon ko waaw. Chérif kon ma ma ma la en repérage dinaa dellu si waat ci yow s'il vous plaît. d'accord. Euh, nga nga baal ma Fadel si ñu ñu question bi ñu ñu ñu ñu écho ko ma am sa commentaire ci ci plénière bi nga xam ni ak euh, proposition Moustapha Cissé Lo bi mu proposé pour ñu. xam sax soo ko seetloo mën nañu bañ a écho. waaw te li ma doon wax moom lañ dëggal. ok maanaam culture waxtaan ba jubóo bi. Mhm. nanguwuñu ko sax ci biir assemblée nationale. parce que dañu commencé dugal bëgg a dugal désormais mhm. culture wan la doole bés la jàll. Mhm. loolu mënut a dëgëral démocratie au contraire da koy nasaxal. xam nga bu fekkee ne juge yi juge ñi nga xam ne dañu am lu leen accusé ñoom Sénégal ak rendre ak fonk seen liggéey dina leen jaral. di toog di at ay ñu papa ba minuit romb ñoom député yi. Hmm. Sénégal fu mu waaw jaaralul la. waaw ñu toog waxtaan ko même bu dee ñett fan. ca dëgg dëgg. ndax jaarul leen ko parce que ñoom. ca dëgg dëgg ca dëgg dëgg buñ leen tànnee tag leen fa. ca dëgg dëgg dañu représenté 15 millions nit. ca dëgg dëgg 15 millions nit ñuy voté loi bi ni mu war a jël fukki fànn waxtaan assemblée ñoom nekk ñu tëju ba nga xam ne ñun ñu fa amul teewaay ñu am ñu am sentiment nañ ñu. d' accord konoon mu lu baax. d' accord Fadel dina Fadel dinaa dellu si waat ci c' est bon Maodo commentaire ci ci li nga xam ne dégg nañ ko Chérif jox ñu ko. tout à l' heure comme moi je pense que li ñu gis nii damay wax ni d' abord. Mhm. très rapidement gis nga Pape Ngagne bruit bi ñuy jox ni Sénégal ñu naan ñi ngi doorante ñi ngi baaxul certes mais damay wax ni que toutes les démocraties sont tumultueuses mm-hmm. seules les dictatures sont silencieuses donc c'est normal parfois xëkkante am mais mu am limite maintenant pour commentaire ci lii mais nag dafa am dictature civilisée de non non non non am na dictature boo xam ni non am na dictature ma ñëw ah, tuuti pam ngeen waaw nga yow xam-xam nga ah, ah. may ma tuuti ma wax la macha allah dangaa macha allah dangaa bind livre mm-hmm. wax ci par cours Mm-hmm. donc yow am na lu bari loo ñu jàngal ci livre boobu. Mm-hmm. moomu dictature. Mm-hmm. ñun war kenn warul toog Sénégal di ko wax mën nga wax nag nii mën nga utiliser benn mot mais ñi xam dictature dëgg ak fi Sénégal jóge ak ñu ko xeexoon non même civilisé donc je veux dire xam nga l' adjectif ah, qualificatif adjectif day qualifier nombre wane couleur Mhm. mais lu amul du ko wax. d' accord donc man man d' ma ci terme boobu. donc léegi pour ma mhm. avancer. pour ma avancer ci mbir mi damay wax nii. ñoom li ñu dof nii li ñu def nii député yi. Mhm. Maodo mën nga ma baal rek ma jàllale Chérif s'il vous plaît maa ngi jégalu ah gis ngeen situation bi moo perturbé. Oh, on y va plateau Chérif. allo Chérif. oui waaw waaw da nga am réaction et nous faire plier parce que c'est le nombre je dis que c'est triste pour le Sénégal nous n'avons pas boycotté nous avons été chassés de l'Assemblée nationale. donc vous pensez que le simple fait de dire que ça sera débat est déjà un vote en soi je pense que la cause entendue. merci Chérif. waaw wolof xanaa di métti du ne yéen amu droit di fi wax droit di discuter amu droit di xelal askan wi pour nga xam ne lii ñuy voté askan wi mun koo xam lu ñu fay defati moo tax ma ne ñun génn ñu dañ ñoo dàq ndax député boo ko ne doo fa fi waxee yow yaa ko dàq. merci loolu nag moo xew tey assemblée nationale. merci Pierre ma ne Sénégal war naa weesu fii Sénégal mérité wul lii suñu histoire réew mérité wul lii suñu démocratie mérité wul lii wax dëgg yàlla tàkkusaanu tey tàkkusaan bu méttee métti lay doon tàkkusaanu nërmeelu ci démocratie Sénégal. mu mel ni kon kooku réaction maître Aïssata Tall Sall. voilà jërëjëf Chérif. Chérif. Chérif léegi ñu ni nan la procès bi ñoom si ñun bopp ñu ne léegi sax du am débat. wote nañ ko sans débat muy loo xam ne lu mus am Sénégal la en tant que procès anticonstitutionnel article cent trois wax ni constitution bi kenn amul droit laal ko ci nu ñuy fale njiitu réew ak nu ñuy maanaam yokk diir euh, de mandat bi tey ñoom ñu forcing ànd ak Macky Sall ak euh, ministre bi nga xam ministre mi ngi noonu réew maa ngi noonu lii am nii mus am Sénégal ñu ko ñaaw kañ kooku mooy sëñ euh, Abdou Bara Dolly Mbacké moom it nga dégg noonu kon réaction ñoom ci rek boycott bi nga xamante ne ñoom opposition bi def nañ ko nga dégg Aïssata Tall Sall moom li mu wax daf ne dañ leen a dàq ci assemblée nationale ndax lànkal leen rek liñ bëggoon maanaam débat am fii mu mel ni kon daal mbir mi léegi tey mu leen ndax majorité bi moom dañuy adopté rek lii di projet de loi bi jëm ci parrainage bi fii jërëjëf Chérif merci beaucoup euh, Maodo ñu ngi woon ci sa raisonnement mën nga ko continuer s'il vous plaît après nag Chérif aussi ñu garder ko toujours en réparage ba xam fan la ñuy euh, Euh, projet de loi la ñu wax. waxaguñu loi un. deuxièmement gis nga man démb ci guddi bi ma déggee maître Oumar fii. Mhm. ci sa débat ak moom. ma dégg ma dem seetaan euh, RTS gis euh, le ministre de l'intérieur et le ministre de la justice. Mhm. bi ñu expliqué débat parce que ñu mel ni ñun xamoon nañu damay wax ni li seen patron sama mag di wax Youssou Ndour naan moom moo demee bay mere sama bopp rek lay mere. Mhm. loolu li ma koy wax mooy ndekete ñun. ñoo war di jël occasion bu ñu am muy féliciter les deux ténors yi ma wax noonu bu problème yi amatee ñuy wax ak sénégalais yi parce que démb ma chauffeur dañuy waxtaan mu ne ma démb la soo comprendre débat bi pour wax leen ni pertinence su bi pertinence pertinence su projet bi pertinence su parrainage bi kenn werante wu ko utilité parrainage bi kenn werante wu ko maintenant lii am nii nag man damay wax ni règlement intérieur assemblée dafa am lu muy doxee. am lu may député yi ni leen bu ñu ngeen yaakaaree ni xel mi indiku na nit ñi waxtaan nañ ci ci benn point parce que ñun suñu suñu budget ministère def nañ ko ci mais jàpp naa ni man tey assemblée nationale en tout cas man bu ma fekkonte ni am naa ci xel mu may joxe mooy fii ñu toll ak nii pour man lii waroon nañ ko yóbbu ci debaa parce que yóbbu ko ci débat loolu am na solo yóbbu ko ci débat fi may terminer yóbbu ko ci débat mhm. dina dindi lu bari Mhm. yóbbu ko ci débat dina tax nit ñi wax. d'accord xam ñi ñu xamul woon xam. d'accord leer ci bopp voilà merci. Nafi dama jàpp ni. Nafi pour man daal bu ñu mënee perdre bañ a perdre temps reprendre ko demain. ba mën ci waxtaan jar na ko. d'accord Nafi Diallo. waaw euh, jërëjëf Pape ngañ may baalu sénégalais yi euh, ci ni ma ñëwee nii ndax biñ ñuy woo ñun ñu ngi jéem ci suba huit heures ba ba biñ ñuy woo pour ñu ñëw fii. Mhm. ñu ngi jéem a dugg assemblée nationale waaye Sénégal dafa mel ni état de siège. moo tax moowu dictature bi dañ ko dund dañ ko dund ndax gendarmerie euh, permanence PDS fépp euh, euh, ñu ngi teg ay gendarme jàpp nit ñi ñun on a énormément de de responsables qui ont été arrêtés ñoom Bachir Diawara ñëpp a ngi ci ci kaso yi te defuñu dara dañuy gaare ñu jàpp yóbbu mmh. donc loolu c'est une preuve que lii baaxul mmh. parce que lu baax je crois que ñun itam dañu amee woon nguur mmh. dañu bëgg réew mi bëgguñu mu tàkk suñu ay doom fii la ñu dëkk ñun nag amuñu moyen jël avion daw amuñu loolu donc tey jii loi bi bu baaxoon concertation am bu fekkoon lu baax la on n'a aucun intérêt tey jii man may jigéen di ndey di nekk huit heures ba heure bii di xeex ay policiers foog naa ko euh, donc du euh, dafa fekk ni total niñ ko defee baaxul fond loi bi baaxul te lii seede na ko lii ñu gis assemblée nationale tey. ndax nag lu baax je crois que nit ki da ngay nangu waxtaan pour convaincre mm-hmm. yow boo gëmee ni li ngay wax baax na. Pape Ngagne mais y a aucun problème da ngay teg ngeen waxtaan <laughs> euh, euh, ci affaire bi mhm. ñëpp déggoo parce que bu boobaa mhm. euh, tey jii parti bu nekk dina mën a bàyyi dara mhm. leneen li jël mais je sais pas si dugg ci contenu bi ci kanam dinañ dinañ ci dugg mais xam nga fi mu nekk nii moom suite bi ñu nag gis ngeen ko mi ngi mi ngi tàkk beek merci Nafi ma jëli Chérif s'il vous plaît doog a ñëw ci ci doyen Omar Sarr maa ngi lay lay maa ngi lay dellu nuyu Chérif Dia. Pape ñu jël Ousmane Sonko tubaab lay wax après ñu. d'accord amul problème Ousmane. ce qui s'est passé à l'Assemblée aujourd'hui c'est une forfaiture de plus d'ailleurs parce que je ne voudrais pas qu'on abuse le peuple en essayant de lui faire croire que depuis neuf heures on a débattu c'est faux je vous rappeler le règlement intérieur de l'Assemblée nationale la procédure c'est quoi quand il y a une loi à examiner quand on arrive le rapporteur lit le rapport de la commission après lecture de rapport la commission, euh, nous, l'Assemblée la, la, nationale donne la parole. S'il y a des députés qui ont des questions préalables à poser, on pose ces questions préalables. Après cela, on examine le rapport dans la forme. Est-ce qu'il y a des fautes Est-ce qu'il y a des omissions mhm. Et quand on a terminé tout ça, on ouvre ce qu'on appelle le débat général. Mhm, mhm. Donc ce qu'on a fait depuis ce matin, c'était les questions préalables. Il y a eu 14 questions préalables de euh, posé ces questions préalables. Nous avons bloqué l'hémicycle et ils ont été obligés d'accepter que l'opposition puisse poser les questions préalables. Mhm. Ensuite, nous avons examiné les questions de forme. Et on devait maintenant ouvrir le débat général qui nous permet de nous prononcer sur le fond mhm. de la révision. Et c'est à ce niveau que, comme ils ont l'habitude de le faire d'ailleurs, l'un d'entre eux s'est levé pour proposer soi-disant une motion et parfois une loi aussi stratégique, aussi importante et aussi vitale, j'allais dire, pour le pays, d'avoir à le voter, à la voter sans débat. C'est que nous ak kon ngeen dégg ko noonu ci tubaab la ñu wax ci wolof tamit ak honorable député Mamadou Lamine Diallo lan moo tax ngeen gedd ngeen. non gedduñu kilifa du gedd gedduñu ñoom noo ne dañu bëgg a wote loi bi sans débat mooy débat amul ñu ne leen dañoo bëgg débat lu fi am depuis ce matin. du débat ay question préalable yoo xam ne règlement intérieur ñooñu may sañ-sañ boobu pour wax ne débat bi dañ ko war a ajourner loolu la gaa ñi def man ñi waxuma ci donc léegi bu ñu tolloo ci débat ñu war a débat ñoom nee na débat bi règlement intérieur bi dafa ne pour ñu mën a proposer benn motion pour arrêter débat yi il faut que ñu dawal benn tour ñu inscrire ñëpp wax ba pare suñu waxee ba pare su leen neexee ñu arrêté débat bi passé au vote nanguñu ko nee nañ dañoo bëgg a wote li wote léegi léegi bëgguñu débat dañoo sonn amuñu ay argument parce que seen patron daw na ñu ngi France euh, moo leen woo sax yaakaar naa parce que ma leen gis ñuy mun mun en général loolu su amee moo leen di woo ne leen lii ngeen def lii ngeen di def comme xam nga assemblée nationale moom ci boppam nee na annexe su palais bi la euh, maanaam loolu moom moo fi xew donc ñun gedduñu comme nee nañ ñoom bëgguñu débat amuñu lu ñu fiy def waaw parce que ñun suñu wareef mooy ñu débat surtout lu mel nii Mhm. wax ak population sénégalaise mu wan leen le lu nekk ci ginnaaw candidature yi ak signature yi. Mhm. triandage la. Mhm. signature yéen ñeneen ma ko gën a xam ce n'est pas obligatoire au Sénégal nga am benn signature mën nga am ñaar ñett banques yi sax seen signature day évoluer ñu di la woo di la wax ne nanguwuñu chèque bi loolu moom moo fi xew. kon nag mënuñoo ne dañuy valider ay candidature fii ah sur la base des signatures France ci boppam ah mu waxoon ne dafa bëggoon ne parrainage soudan yi génn na ci. mais est-ce que politiquement lii du defet ci opposition bi malgré menaces yi ngeen waxoon ne du jàll booy booy waxee ngeen loi bi dina jàll est-ce que yan conséquences ngeen ciy tiré. non tey yaakaar nañ ne opposition bi wane na boppam parce que population sénégalaise bi fii partout France Maroc Louga Saint-Louis. ñoom ñëpp taxaw nañu wane ne d'accord uñ ci euh, euh, euh, léegi dañu woote manifestation fii Soweto gis ngeen lam fi andi ah ci ci force de l'ordre am na sax ñuy wax ne la mu investir ci ci ci ay armement fii ci police beeg gendarmerie kenn mosu ko fi def depuis Senghor ak Abdou Diouf loolu mooy situation jàpp nañu ay cent jeunes sans arrestation au moins moo fi am am na leader politique yu ñu jàpp ñoom Gafo ñoom Idrissa Seck ah ñoom ñoom Guy Marius Sagna ak ñoom Assane Mbacké ak ñeneen ak ñeneen ah, kon nag loolu moom mooy situation donc la tension est montée Sénégal boo xam ne ne moom mooy vitrine démocratie Afrique dellu na ginnaaw Macky Sall wane na boobam tey. donc kon euh, Pape Diakhaté fekk noonu. voilà Mamadou Lamine muy réagir xam naa dama lay bàyyi nga wéy. merci merci jërëjëf Chérif ci compréhension boobu alors le Oumar Sarr nga baal ma nag dafa am lu ñu waxoon ci pet dinaa ko yëkkati ñëpp dégg ko parce que bii Maodo Malick di wax naan euh, débat ay mën na tiire en longueur da nga ni nag ay pexe mën na ci am affaire yi ak mën na gaaw ndax ba ngay wax lii nga lii nga xalaatoon ni lu mën a nekk la nga baal ma nag ci pet lañ ko waxoon mais yow aussi député nga dama bëgg ñu yëkkati lool ndax lii galgal la boo xam ne dañuy yóbbu nit ñi par force ñu voté loi bi. Euh, jërëjëf ci ni nga ko maanaam jébaane. maa ngi ko waxee ci suuf. waaw même baal ci kaw waaw. loolu maa ngi la ciy sant. mu mhm. euh, bëgg la wax ne man nekk naa député ñaari yoon. Euh, dafa am ay ay mécanisme de blocage. Mhm. waaye lu loxo def rek. loxo mën na ko dindi. loolu mu ngi ci biir règlement intérieur bi. Mhm. bala may dem ci loolu nag ma wax ci démocratie mooy lan d'abord. parce mhm. que daf ne am ñu ne ñii c'est pas des démocrates xam nga démocratie mooy lan. Mhm. mooy ñu ne bi sàngam élection am na nga defar say list Sénégal yi décidé nga jël sa xaalis. taal say oto dem wër Sénégal. ñu ne ñii yéen a am majorité cent vingt sept députés ñeneen ñi am nañu nàngam. mandat député dañ ne le mandat dure cinq ans mhm. présidence cinq ans la xam nga démocrate mooy lan du ay wax rek mooy da nga koy jëfe mhm. élection daal bu joxee résultat majorité am ndax képp koo fa gis rek da doon wut majorité. dañu war a nangu nag. ndax aussi démocratie ndax nga baal ma ndax aussi démocratie ni nga joxe ci exemple d' accord naa ci. ndax aussi du démocratie. dañu war a dem ci ay échéance électorale présidentielle. ñëpp war a yem ci ci ci ci ci point de départ bi. ndax dafay am sañ-sañu kenn koo xam ni daf ci am position boo xam ni position de faveur la ndax loolu aussi démocratie la. mais bañ position de faveur am moo tax ñu indi loi bi. d' accord muy benn. ok mu nga may ma tuuti ma yeggale. Mhm. ñoom ñiy wax yépp dañu war a xaar ba beneen élection ba ñu am majorité ndax kenn ku ci nekk boo amoon majorité say loi bu ñëwee assemblée c' pour que sa majorité mun ko jàllale loolu nañ ko nangu. man nekk naa fi député. 2005 majorité loolu rek lay jëriñ. ci assemblée nationale non majorité c' est pour gouverner. man nekk naa député ci assemblée nationale 2005. ñu def fi acte d'accusation contre Idrissa Seck. ma doon xeex pour que acte bi du jàll. mu laaj trois cinquième. am jege ñu ñu sax trois cinquième. dañ ne nii rek yëkkati loxo xam ne matul ñu daal ne la séance est loolu fi lañu ñu fekk. mu benn mais du lu baax lu ñu war a. non loolu du lu baax. du lu baax moo tax il faut que lu ñu war a joxe comme exemple. non dama lay jox exemple rek du lu ñu war a sax méngale. non lu tax xam nga lii li xew tey. waaw. majorité am na. dem nañ commission débat commission de réforme amoon na. ñu woo leen ci pour ñu débat ñi bëgg a dem dem nañu ñi buggul dem demuñu huit heures de débat en commission commission fële lépp di xewee. plenière bi moom c'est pour que yow Pape Ngagne man député laa sa xarit laa nga gis ma ñoo bokk koñ nga gis ma ma wax mais l'essentiel ci projet de loi bi ak loi bi wax nañ ko fële maintenant ñoom dañu ñëw ak seeni pexe. waaw mais bi la askan bi di déglu. très bien moo tax plénière bi plénière bi la askan wi mën a am occasion. non la nga ma laaj pour mën a xam lu xew. non la nga ma laaj nag ci laay ñëw tontu la ñoom dañu am stratégie pour tey dara du fa xew. loolu mooy stratégie opposition. c'est clair léegi def seen contre stratégie gis nga article 74 bi. attends ci la ñu sukkandiku pour def dix 17 orateurs ci question préjudicielle boo xam ne nii ku ñëw li sa moroom wax ngay wax. cinq c'est cinq minutes boo multiplier ko par 17 plus le rapporteur et cetera donc l'opposition moo bañ débat am muy benn. parce que bu ñu bëggoon débat am ñu poser seen question préjudicielle bàyyi nit ñi inscrire ñu dem débat sànq ba léegi ministre bi question bu ñu ko posé xam nga lan lay tontu bàyyi leen ba ñu dem ci débat bi ça veut dire que ñoom bëgg nañ ko mais attention règlement intérieur tam daf ne assemblée bi bu ñu ko ubbee ci le matin. bu minuit jotee zéro minute lépp lu luñ jàllale engagé tul assemblée nationale bi loi bi da dootul mën a jàll. donc stratégie opposition bi moo doon dara bañ a am. man nag ma jàpp ne fulla la. fayda la d'accord fulla la fayda la que ñoom. ñu def seeni pexe ñoom it. ba ñeen leen doon galgal ñoom ñu roppi. galgal bi euh, euh, Fadel dafa mel ni sa question dafay ñëwaat ñun askan bi. ñun tout ça dans ça mm. par exemple ñii seen stratégie ñi lay contre stratégie mm. est-ce que loolu aussi du la gën a renforcer ci li nga doon laaj li nga gis nii xam nga li muy mooy ne ñoom donc bu ñuy def ni ma desee ci nguur la ñuy seet mhm. mais seetuñu lan moo ci wàllu waa askan wi mhm. ak la ñuy teg tey ndax lan lay jur ëllëg xam nga nekkoon ci loolu moo taxoon li muy wax ne man bokk naa ci journaliste yoo xam ne dañu xeexoon jamono jooju. Mm-hmm. ni serait-ce que seen liggéey kese. Mm-hmm. bi ñuy forcé mm-hmm. pour acte d'accusation boobu. alhamdulilah ba léegi juguma ci loolu. ñoom Mbaye Ndiaye ak ñoom euh, à l'époque euh, Cissé Lo bi leen daq assemblée nationale ginnaaw bi leen askan bi fale. ñoom député yi ñu daje génnee leen ci nee nañ parce que dañu changé parti. dañ ci bind wax ci ba bëgg a dee si jamono yooyu. parce que tey jii ñoom dañuy nekk ci du gar biir assemblée nationale ñun ñu soppi suñu doxalin xam nga lu tax mm-hmm. parce que loolu mooy ñun démocratie réew mi moo ñu ñor mm-hmm. ndax bu fekkee dañ bëgg a définir démocratie kese majorité truc loolu ci parti régime yu yu strict yi presque communiste yooyu nga xam ne jeex na ci àdduna bi mm-hmm. nga xam ne buñ ne voté nañu léegi ñëpp fii lañ far boo ko bi da ngay noppi ba élection ñëwaat élection yi dañ ko organiser noo xam ne keneen sax du mën a wax loolu du démocratie te démocratie en fait du dara tubaab bee ko créé wax la rek le fond du problème xam nga mooy lan lan mooy cosaanu askan wa ak lan mooy seen mbaax ndax baax boobu jar na sàmm waaw wala déedéet. Mhm. ndax bu doon dugg tey ci ay définition démocratie Maodo Malick dina joxe benn. Mhm. Soxna Mariama dina joxe benn. Omar joxe yow nga joxe. ñëpp ku nekk di nga joxe sa démocratie bopp mais xam nga lan moo am solo lan moo gën ci askanu Sénégal ak soxna askanu Sénégal lan mooy seen cosaan indépendance ba léegi. Mhm. te seen cosaanu démocratie bu fekkee réew mi tàkkut ba léegi. 1962 63 ginnaaw Senghor ak Dia Abdou euh, bu ñu jógee ci loolu Abdou euh, Senghor décidé tëj robinet yi tëj parti yëpp waxtaan ba juboo moo indi pra Sénégal jugee ci opposition radicale clandestinité mhm. dem dugg UPS waxtaan ba juboo la mhm. jamono jooju waxaguñ ay waxu transhumance ay entreprise lañ doon wax ay coalition mais waxtaan ba juboo mhm. parce que dañ ne rey nañu Kourouma euh, fële et cetera et ah kon nañu waxtaan ba juboo pour ñu préserver waxtaan ba juboo moo indi Abdoulaye Wade créé parti 74. mu wax ak sa Senghor naxanteeg moom. ne ko bul tëj ubbil. waxtaan ba juboo ñu créé toléré quatre courants. ba mhm. Abdou Diouf indi waxtaan ba juboo ñu ne ok léegi multipartisme intégral. nee naa waxtaan ba juboo indil nañu ba législative yi passé ñun ñëpp ñu d'accord violer loi bi. Mhm. ndax 47 listes nan la ñuy voté. Mhm. ñu ne waxtaan ba juboo nañu toléré cinq personnes. léegi tey bu fekkee da nga jël loolu nga xam ne mooy suñu moom la Sénégal. meññal di ko participer ci adduna bi tey jii bu fekkoon dañ ne adduna bi euh, démocratie bu nekk da ngay ñëw ak sa mbaax Sénégal day indi na man da waxtaan ba jubóo moom laay participer mhm. nga jël loolu dafa nekk suñu culture sax waxtaan ba jubóo dafa nekk suñu aada dafa nekk suñu culture nga lem dugal sa poche wane ko ba ci mhm. assemblée nationale ba pare ne damay dëgëral démocratie xam nga Pape Ngagne lan lay ragal mhm. man parce que yii yëpp bu ma koy gis bu ma koy seetaan ñi di koy wax damay dana réew mi dafa mel ni ñi nekk ci nguur gi yëguñ luy réew mi di riir ndax xamuñ fu ndaw yi toll parce que xam nga man lii daf may métti trop non pas parce que acteur laa ci am na fu ma far yaanaa ma dérél mais damay xool désaveu bu muy indi ndaw ñi weddi ko ñooy politique yépp d'accord gis nga yooyu muy jur lan lay indi ëllëg d'accord sans problème voilà merci Maodo euh, yow ci sa ci sa entendement bi ngay daaneel da nga da nga jàpp ni bu débat amoon moo gën mooy li nga xam ni moom la <clears throat> moom la moom la Fadel wax ci waxtaan muy si muy suñu culture itam mais bu fekkente ni waxtaan amul dafa am sama lu ma la waxoon jaay doole mooy am ah, lii parce que est-ce que duñu dem ci loi boo xam ni même bu fekkente ni jàll na dafa jàll ci jaay doole très bien pam Ngagne euh, en vérité man li ma li ma ni moom mën a xari ci mhm. ñàkk débat bi mooy dama xam argument xam na am ci débat ci ci euh, dañu mënoon a yey quoi ci débat ñu mënoon a yey ci débat mhm. parce que li nga jàpp ni euh, mënoon nañ ko yey ci débat non gis nga mhm. bu ñu ñëwee ci le euh, projet de loi bi lan moo ko waral xam nga Pape Ngagne lu war a jeex ci dëkk bi kuy candidat bi ñu ne diw doomi Pape Ngagne jooju ki mu tuddee ki jàngi woon France ñëw te ñu joxe woon ko fële ñu tuddee ko Imaam Ndiaye xamuñu sa gale ya xamuñu sa fàlle nga ñëw taxaw xamuñu yaay kan ci lenn nga ñëw te booy seet. waaye nekk nga Sénégalais exclusivement non non non nekk nga Sénégalais may ma rek maa ngi ñëw foofu gis nga Pape Ngagne. Mm-hmm. du lépp li nga xamante ni loi moom la wax. ñu di ko dawal rek loolu dafa gën xam nga sànq question bi ngeen posé te mu am solo mooy et le citoyen. Mm-hmm. man dama ni loi bi citoyen bi daf ciy gagné ñetti yoon. un dina ci gagné ci alalam ñu ñoŋal ko sakkanalal ko parce que ku ne xam na ni que. élection non alal ji laay bañ a dégg ndax démocratie dafa a dégg ñoo koy ñàkk ñoo ko am mais ñoo koy aare suñu démocratie. PAM ngañ ñoo koy aare suñu république. PAM ngañ waaw mais danga may déglu aussi. après bu relance nga relance ma mën a comprendre. nga mën a wax. Mhm. dama ni xam nga euh, ñett daf ko ci am les citoyens mhm. bi ci njëkk mooy koom-koomam nga xamante ni matul doyul fa mu jëm doyu fa fi mu des matalewu ko ñu war ko ko sakkanalal ci élection mhm. de deuxièmement mhm. di nga ah, ñoo ko déggandoo ak la régie Maodo euh, Chérif allo Chérif ñu ñu baal ma ñu dem fekki Chérif Dia ci assemblée nationale euh, Chérif dafa meloon ni jàppandina na mais Chérif président Article unique du projet de loi amendé. Les articles 29, 30 et 33 de la Constitution sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes. Merci. Mais aux voix l'article parce que c'est les trois pour son Veuillez compter, si vous comptez de manière précise. commencé nag euh, di dugg bu baax si li jëm nag ci projet bi nga xamante ne. allo Chérif. oui waaw Chérif waaw. Pape maa mel na ni ñu ngi ci adopté loi bi euh, daanaka fi mu nekk nii ñu ngi dem sax ci vote yi. Euh, mhm. te yaakaar naa ne buñ ci paree rek contre xam naa du fa am parce que ñu ko doon contre kenn nekkatu fa. fan la lan la président ñas di wax noonu. waaw dafa mel ni Pape. Mhm. kon résultat bi mu mel ni euh, d' euh, li ci bees mooy am na ay coppite quand même ci projet de la bi amendement boo xamante ni defoon nañ ko léegi au lieu mu nekk. 1 pour cent 1 mhm. pour cent léegi xam nga dañ ne woon 1 pour cent la léegi ci euh, li nga xamante ni moom mooy corps électoral bi maanaam ñu inscrit ci fichier bi mu waroon nekk 65000 voix yoo xamante ni daal 65000 signatures mais maintenant dañ ne dañ ko yóbbu 0,8 pour cent. ko comparé ak li ñu waxoon kon mu mel ni wàcc na jóge na ci 1 pour cent jëm ci 0 virgule 8 pour cent mais dañ ko plafonné ba 1 pour cent maanaam kenn mënut a dépensé kenn mënut a dépassé 1 pour cent yi mais daal ku am 0 virgule 8 pour cent ci ci signature maanaam ci li nga xamante ne mooy parrain parrainage. mën nga mën nañoo accepté ci kii bi buñ ko yóbboo fa nga xamante ne mooy conseil constitutionnel buñ sukkandikoo ci amendement bi nga xamante ne moom moo ci bëri jamono ji nag ñi ngi ci pour vote projet de loi bi sànq liñ fi nemmeeku mooy bu comme opposition bi génn na lu toll ci cent vingt personnes moom daanaka d'accord nan gis nañu bàyyi waat la nga wéy parce que Abdoulaye Wilane a ngi ni daf mel ne am na lu mu ci bëgg a yokk laataa ñu si ñoo mais jàppal ni daal am na amendement boo xamante ni euh, biñ ko defee liñ tënk mooy zéro virgule huit pour cent léegi ku ko am mooy liñ laaj. d'accord ko ci un pour cent. Euh, lañu yaa nekkoon euh, ak. Pape Ndiaye dama doon wax nii. Mhm. may répété ni opposition ba lii ñu def nii jalgati guñu dama wax ni une fois encore jalgati wuñu wax naa la sànq bi ñu tëjee micro bi ne li ma metti mooy débat bi. bu ñu ko dawaloon majorité bi argument yi ñu am ci mbiru euh, parrainage bi bu ñu pare woon Sénégal yi.

du man dama wax nii. Euh, lii assemblée def. xëttuñu yoon wi. mais mi ngi mel ni match nga ñëw tey indi sa match de football nga ñëw teg ci terrain bi ñëw équipe bi nga waroon a dóor 3-0 mu forfait nga toog di jooy parce que da wax ni bu ñu daje woon dina xam ni. li olof yi di wax que lépp dina leer donc man ci niveau boobu laa waxee ni regretté naa vraiment le fait mu jàll sans débat maintenant lan la ci askan wi di gagné parce que il faut ñu jàll ci émotion yi jàll ci yi rafet yooyu te mu am solo ñu ñëw ci maintenant askan wi lan la ci gagné premièrement wax naa la ni dañu euh, ñun mouvement gëm sa bopp déjà ñun ñoo mhm. pro ñun njëkk a proposé ni sur les 47 listes bari na ñun ñoo bind wax ni nañ ñu ko defal 5 listes yàlla def ñu nangu ko parenage bi aussi booy seet le vers le 2 février 2018 ñu en assemblée générale bi ñu génnee dañuy parenage na am ba pare ñu wàññi caution bi parce que dañu gisoon ni d'abord candidature yi bu bari alal ju bari daf ciy dem ci mhm. askan wi mhm. deuxièmement euh, vote parce que aussi bala ngay xool ni ku ci nekk tey ah. da nga am non j'ai ah, ah, été coupé par mon euh, euh, non non non attends attends je termine là-dessus c'est-à-dire ma wax ni que mhm. euh, am na xaalis bi muy jël citoyen bi jóg am droit voter nga xamante ni ñiy nekk candidat dañoo am droit nekk candidat mais le citoyen qui est au cœur de la démocratie dafa war a am possibilité pour dem voter ji du voter de mais li gën a garaaw mooy si on continue ni ñu doon continuer bu ñu ko continuer woon dina dem ba taux de participation à l'élection présidentielle day wàcc te loolu bu amee li muy indi mooy un chef de l'État bi nga xamante ni fal nañ ko mu am la légalité constitutionnelle. mais du am légitimité populaire. merci beaucoup beneen élément bi. ci laay terminer waaw non ci laay terminer ci laay s'il te terminer. leneen li nga xamante ni moom moo ci am solo mooy booy seet ci processus bi. Mhm. lépp lu nga xamante ni cadre la bu ñu mënoon a waxtaanee gis nañu que l'opposition demul ci waxtaan yooyu. voilà léegi euh, Nafi euh, responsabilité bëri na ci même bu amee c'est partagé. Mm-hmm. parce que am na nu ngeen doon doxalee à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. seen ay député ñu dem ci débat bu gaaw. mais mel na ni affaire bi xëy na danga am da ngeen am leneen lu ngeen ci laxas moo tax aussi lii xew-xew kon ñàkkul ne am ngeen ci ci ci responsabilité li ngeen bëggoon moom ngeen am mooy même bu loi bi jàll jàll ak coow lu mel nii. waaw xanaa yàlla dafa wàcce décret ne tey la àdduna di tukki tey la Sénégal di arrêté. Mm-hmm. ndax démocratie jarul toog une semaine waxtaan jarul toog 10 jours waxtaan wala dafa am lu ñu yëg lu ñu yëgul parce que nag ñun dégg nañ ni Macky Sall ma nga fële euh, ca France moo ak Alassane Ouattara liñ ma wax bi may ñëw sax ne <laughs> mi ngi waxtaan ci dévaluation franc fa xaw ma nag xëy na loolu lay bañ dafa bëgg loi bi jàll avant loolu di éclater je ne sais pas mais ngeen xool ko yéen journalistes yi ma bëgg également ñëw ci lenn démocratie Euh, man bokk ma nu ma ko gisee depuis Athènes ba muy am. mooy dañuy non maa ngi ñëw dama ci ñëw mais foog ma foog ma wax ni démocratie. Mhm. mooy lan l'essentiel nañu waxtaan. parce que waxtaan bi moom mooy mooy tax kubéer bi marmite bi ubbeeku lii nga nekk di gis ba ñu naan ndax am na moor wala amul moor ña ngay évacuer ay ay ay ay xale hôpital du am parce que nit ñi dinañ sentir ni wax nañ. Mhm. seen soxla et également ni ñu gisee démocratie ay la loi du plus fort non. yëf bi du match football du match lutte c'est pour le Sénégal parce que loi bi dafa war a des pour ñu ay doom. Mhm. donc c'est pas une question de match la majorité la minorité te ñun lii ñu def dañu def suñu role parce que tey jii bu ñu ubbi woon débat bu minuit jotee ba tey lu xew lu jot suba wala mënuñu ko je ne sais pas man j'ai jamais été député est-ce que mënuñu continuer débat yi suba ak gannaaw suba ak dim woote samedi dimanche ba sénégalais yëpp gis mais lii mooy indi dëkk bi mi ngi tàkk. Euh, université gis nañ euh, euh, la ca am Abbas Ndao dañu évacuer malade yi lii yëpp Malick Ndao di sama ku ma ku ma respecté yow nag mii dugal lii yaa taal dëkk ndax lii waru leen ko woon dugal parce que même parrainage citoyen dëkk yu développé dañ ko bañ parce que bu ñu duggee ci fond wu débat bi xaw ma ndax dinañ ko am temps mais li ma bëgg wax c'est pas une question de 0,8 pour cent de 0,5 pour cent le problème nous de l'opposition nous n'avons absolument pas confiance en Mhm. nous n'avons nous n'avons pas confiance en ce régime mhm. en ce régime là mhm. gëmuñu leen xam nga lan mooy xew ñun mën nañ dugg xam nga ñun su ñu xoolee ba ci biir ñun amuñu problème mu kii bi mais wóorul parce que mën nañ ni Fadel Barro mii ñun xamuñu ko mu infiltré ñu signé suñu liste dem signé ci liste Idrissa Seck. waaw mais di ngeen am recours gis naa ni ci ni ko ni ko ministre de la justice mm. waxee. am na ci may ma ma yeggali sénégalais yu bëri. Mhm. man maa leen di déglu. ci wax sa xalaat comprendre ñu ñoo ñu neex nañ nax surtout en zone rurale mën nañ dem signé deux fois mais au delà de ça am na ay régions yoo xam ne. mënuñu euh, euh, parrainer plus de quatre euh, quatre candidats. et il faut sur dans dans cette région. mais loolu fond bi la mais au-delà de ça. tey jii Macky Sall mandargaal na Sénégal. il est chargé de tout ce qui est justice il a il a été assermenté il aurait simplement il serait venu ici pour dire monsieur le député je vous donne l'ordre à ce moment on peut passer à cause de la loi aucun député n'est au-dessus de la loi de quitter cette tribune et s'il résiste personne ne l'aurait violenté du ma ko nangu ñu ko rusloo di ko dóor muy nàcc fii duma ko nangu waaye dinañ ko téye ci loxo génne ko ba ci biti pour vingt quatre heures di le règlement intérieur yoo xam ne dootu am droit dugg fii waaye duma ko def billahi s'il n'avait pas respecté les trois minutes loolu laay def te ku ko fi def ëllëg ma def la ko non dama bëgg rek mu leer comment on se réunit on fait un compromis on dit trois minutes nga ñëw ne man cinq laay wax ma ne doo ko def billahi wallahi Ablaye jërëjëf Aïssata Tall Sall aussi ngeen ne ko gis ngeen kii de lim la wax boo ko deful billahi bu ko defuloon je dis à Dem colonel sax du ko laal Dem moom moo koy def parce que moo yore fonction boobule il le somme au nom de la loi de quitter s'il ne quitte pas lu ko ca fekk loolu amul immunité parce que le délit flagrant immunité parlementaire amul de quand il y a flagrant délit dégg ngeen ma magistrat yaa ngi nii dama dégg tooñ ne man lii la assemblée wax du ko def président assemblée article 63 il a la police des débats et les questions de sécurité dans l'hémicycle nga ne ma bañ bu waxee jël leen ko ngeen jéggal ma de duñ la poñe de dañ la téye ci loxo si tu résistes ñu kutum la sànni la ci biti ah non maintenant mes chers collègues je ne vais jamais merci mes chers collègues l'ordre du jour étant ainsi épuisé je propose à l'Assemblée de lever la séance et de laisser à la conférence des présidents le soin de fixer l'ordre du jour et le calendrier de nos prochains travaux s'il n'y a pas d'observation il en est ainsi décidé et la séance est levée Euh, xam naa xëy na boog ay xale ki opposition sénégalaise euh, lii c'est c'est triste te ñoom bu ñu foogee ni jeex na tey ñu ngi nax seen bopp tey lancement la euh, ma bëgg wax ci ci ci lii ñuy jàllale Macky sàll propre chutam la nekk di di signé nii il vient de signe sa propre chute te bëgg naa euh, ñi ànd ak moom euh, di défendre coûte que coûte ses positions bu ñuy fàttali Ablaye Wade nañ fàttali ni que 23 juin Ablaye Wade ba ba mu yëgee ci pale ministre premier ministre am ne ko dañu tere suba euh, kii bi nu mu tudd manifestation bi dafa ni ku ko tere ñu ne ko Ousmane Ngom. mu ne na ko autorisé. mu woo Ablaye Faye ba bërki démb Ablaye Faye ak may wan papier bi mu ne ma ndeysaan moo ko dessineel boppam. mu ne leen laissez les s'exprimer ngeen taxawee nii ñu taxawee nii ñu nekk ci digg bi kon boo leen yëgoo copie Ablaye Wade waru woon leen bañ tey sénégalais yi dem assemblée nationale très bien euh, Chérif euh, mu mel ni Chérif mi ngi toujours en euh, repérage bu fekkee disponible na ñu jël ko Chérif Dia mu wax ñu bu fekkee waaw jàngat bu rafet la ci tey dafa am dafa nekk bis bu rëy bis boo xamee ni nii dañu doon voté benn loi constitutionnelle pour li ñuy dugal tudde ko parrainage parrainage nag mooy lan mooy dañu jàpp ni Sénégal mbër moo xam ni yaa ngi dem ci élection war nga am lang lang googu gouvernement bi indil ñu benn taxe boo xamee ni bi ñu ko indee dañu waxoon di signé pour ñu mën ko def bi nga xamee ni nii indi nañ ko waxtaan ci gis ngeen ci suba ba quatre di jot ñi nga xamee ñoo nekk jégi ñoo ngi def ay galgal pour que yëf yi ba ñu mën a avancé te xam ngeen ni règlement assemblée nationale dafa bëgg ñuy wax ak lu ñu mën a def bu minuit jotee dañu war a arrêter débat yi léegi nag ñoom may nañ leen dans le cadre du règlement intérieur question préalable yi ñu doon def yëpp am na fukki nit ak juróom-ñaar ci yoon yoo xam ne ci suba gi gis ngeen ko ñoom rek ñoo doon wax bi ñu paree loolu nag ñu war a dem ci débat bi ñu ne ñu def débat organisé mais ñoom bi ma proposé ñu voté loi bi Cissé proposé ko pour ñu voté ko sans débat ñoom ñu ne na nañu def benn organisation ñu organiser débat bi ñu tànn ñeent ci groupe bu nekk mais yàlla dogal bi ñu ko defee ñoom ñu ne ñoom d'accord ñu parce que ñi ñu àndal mënuñu leen a ilif te nit nag boo ko iliful doo ko mën a jaarloo fi nga bëgg jaar parce que groupe yooyu li ci nekk mooy nit ñi ànduñu parce que ay patron yu bari ñoo ci nekk armée mexicaine la armée mexicaine nag da ngay wax lii defe ni yaa ilif nit ki fekk ilifoo ko. mais yéen lu tax ngeen daw débat bi ngeen voté sans débat. non débattre nañu. xam ngeen ni la loi déglul non la loi constitutionnelle bu ñu waxante dëgg ñaari weer a ngi ni ñu ci wax amul benn journaliste bu nekk fii boo xam ni xamuloo opinion nit ñi xamuloo ñoo xamuloo opinion député yi. bërki dem rek def naa benn conférence de presse fii woo presse bi wax leen li nga xame ni moom la ñu tënk ci biir commission technique yi kon nag jàpp naa ni dawuñu pour bañ a débattre parce que li ñuy wax xam nañ ko li ñu li ñu bind tënk ko kay xam nañ ko leer na itam ci ñun waaye nag bëgguñu tam ku yàq suñu liggéey ñëw rek di def ay dilatoire di dàq di dàq pour bu ñu demee minuit ñu ne alors voté wuñu loi bi suba dañ koy continuer ainsi de suite kooku c'est inacceptable. kon Pape parlementaire. Euh, merci benn bokk ñu mën ñu xaar rek. Euh, ministre de la justice mu génn moom it. Euh, comme bu paree moom Ismaïla Madior Fall mi nga xamante moo doon défendre loi bi ñu bàyyi la nga sa débat. merci jërëjëf ci ni ngay ci compréhension boobu nga am parce que itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci plateau bi dafay am solo réagir ci euh, li nga xam ni foofu la loi bi mujjee. Euh, euh, Pape Ngagne ma terminer pour débat bi. Mhm. ñun on était pour le débat. même buy jël deux jours trois jours pour ñu mun a wan ay arguments. Mhm. juridiques ay arguments yoo xamante ni populaire que loi bi baaxul warul jàll. d'accord alors monsieur Sarr Oumar ndax bu ñu waxee loi bi voté nañ ko sans débat sans débat boobu ñu ci dégg ak li mu ñuy delloo ndax dina du du gàkkal loi bi nga xam ni dafa nekkoon loi bu controversée bu amoon coow. ndax lii du am lu mu ko lu mu ci lu mu ci jur. déedéet d'abord loi bu xasee dugg assemblée. Mhm. ñu teg ko ci taabalu président assemblée. conférence de président. Mhm. tëral agenda bi. Mhm. ñu woote commission. commission bi pare def rapport am. bu plénière bi ubbee rek dañu war a voter loi bi wala ñu delloo ko donc. di xaar ba suba ak ginnaaw suba moom munu ci non de su plénière bi mooy lan su maanaam tey bi ñu commencé ubbi séance bi huit heures waaw ba minuit waaw dañ ci war a wote loi bi waaw bu doon vote budget la ñu commencé benn ministère mhm. par exemple huit heures du matin su minuit moins cinq jotee benn député mooy jóg ne nañu voté parce que il reste cinq minutes mhm. sinon budget boobu duñ ko mën a voté ci bis bi mhm. donc règlement intérieur bi permettrewul li nit ñi bëgg ñuy xaar suba ak ginnaaw suba ndax jàpp naa ne amoon nañu jot pour wax ci tey ci suba amoon nañu jot pour débattre ci waaye 17 orateurs ci question préjudicielle def naa 12 ans assemblée nationale musuma ko fa gis muy benn donc opposition benn ndam rek la doon wut mooy loi bi jàllul tey ñoom loolu dong moo doon seen seen victoire yàlla dogal nag na la ko waxee sànq lu loxo def rek loxo mën na koo dindi ñëpp xam nañ ne débat bi moom moo gënal ci pexe la loi bi jàllee mooy maanaam lu ci pexe pexe yi pexe yi ñoom li ñu nasoon ñu nocc ko ba mu set maanaam fexe ba luwaa bi du jàll te loi bi dafa war a jàll parce que projet de de loi la du gouvernement bu ñëw majorité assemblée nationale ñu war ko voter encore une fois dama koy répéter nañuy bàyyi di wax ci askan wi askan wi mooy cent 117 députés yu 127 députés yu majorité ak trente 38 députés yu opposition. loolu mooy askan wi <laughs> mooy ci li officiel. non loolu mooy askan wi c'est-à-dire que ñun amuñu. benn yow li nga gis assemblée mooy askan wi. loolu nga wax loolu mooy askan wi xam nga lu tax. c'est-à-dire ñu ne nañu voté loi bi amul kenn ku ko voté wul. non xaaral rek. c'est-à-dire bu amoon kenn sax ci mouvance bi koo xam ni voté wu ko mën nañu jàpp ni au moins am na démocratie ci foofu ndax jàpp nga loolu mooy mooy askan wi Papa Ngagne nga xam ni ñëpp dañoo yëkkati ndoo seen loxo Papa Ngagne waaw dama ne na askan mooy ñu ne Sénégal am na élection député bis sàngam mhm. ñu nga yeew ma yeew keneen yeewu bàyyi mhm. suñu yitte yépp six millions et quelques inscrire quatre millions et quelques votés mhm. man jàpp naa ne askan wi mbirum Sénégal yitteel vote nañu séddale nañu seen ay cër ne lii yéen yéen ñu yoral suñu baat loolu mooy sensu député. Mhm. léegi nag ku bañ loolu da ngay xaar élection bii di ñëw loolu mooy démocratie. Mhm. bu kenn naan askan wi lii lañ bëgg kenn xamut lu ñu bëgg lu dul lii ñu nu wan. Mhm. donc loolu mooy ñoom galgal yi ñu doon wut nag. règlement bi moom. lu mu def rek xamal ne teg na leneen. ca wet ga merci cent vingt cent dix sept députés yi nga xam ne. ñoom ña nga woon commission. huit heures de débat def nañ ko ñun ñoo ngi fii toog ci majorité présidentielle lañ toll ñu ngi ni débat kenn ku nekk yaa ngi wax sa xalaat te du duñu fi xuloo du ñu fi xeex. damay wax ne d'accord naa ci. Euh, soxna si wax ne d'accordu ci. man noonu laa gisee démocratie bu civilisée. d'accord merci beaucoup. Fadel loi bi voté nañ ko sans débat mais question bi nga xam ni moom laa ciy dugal rek mooy ndax ci député yi yow gis nga ci sa bopp étant askan wi. duma ci mën gis sama bopp te dinaa insister ne askan wi am na te lu tax askan wi. moom ah xamuloo xamuloo ku ma voté la ku ma voté lu nag. dëgg yàlla non voté woo ak. bis loo ci. cest à que mën na am voté nga ci majorité majorité bi moom voté loo leen. loo loo ci xam nag. non yow itam yor yaa ngi woon. da pas un débat. yow man boo xamuloo fu ma voté. du ma ci je refuse de dugg ci débat. d'accord mais xam nga lan laa bugg a wax d'abord. Mm-hmm. dama bëgg a ñu wax dara lu tax député yi nga fa gis nii tey. Mm-hmm. ak ñi nga xam ne ñooy défendre majorité bi bu fekkoon dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko samp ci bu fekkoon dañ ko samp ci ay conviction yoo xam ne dañ koy adossé ci sax seen diine bu leen neexee mhm. wala ñu adossé ko seen doctrine politique wala seen idéologie ñu ne kii kat ba mu nekkee ci wa langue politique wala rek libéral la nii lay xalaatee nii lay demee donc loolu moo ko may mu nekk ci position bi mhm. nga xam na dañu ci reconnaître sa bopp waaye dañuy xeex wàdd mhm. bu ñu paree lañ doon xeex ci Wade dem ci ànd ak Macky Sall. d'accord bu ñu defee ñooñu ñooy demaat àndaat. baal ma rek ma jëli Chérif ak Ismaïla Madior Fall s'il vous plaît le ministre de la justice. ba ci moom mii xam nga. Euh, Chérif jàngal ñun droit. allo d'accord merci. waaw tey dama ne bis bu am solo la ci histoire Sénégal parce que dañu seetlu woon ne suñu dëkk bi démocratie la démocratie la parce que ñun yàgg na nañu am multipartisme balaa muy am sax ci yeneen pays africains yi ñi nga xam ne ci conférence nationale ñoom la ñu am démocratie ñun dëkk fi yàgg fii ci suñu réew ñu ngi fiy voté depuis au moins cent cinquante ans sànq maa ngi fàttali rek ne à l'époque contemporaine waxuma 1848 mais soo jëlee à l'époque contemporaine ñun sax ñoo njëkk organiser France élection présidentielle ñu ko organiser 63 français ñu ngi ko organiser 65 donc Sénégal démocratie la Sénégal dëkk la boo xamante réputation markam soo waxee Sénégal ci monde bi li ñu njëkk xalaat mooy démocratie am na sax ñuy wax ne dëkk la boo xamante ni dafa sous-développé économiquement waaye dëkk la boo xam ne démocratie la donc loolu euh, euh, dafa nekk marku Sénégal waaye dañu seetlu woon depuis quelques années que dafa amoon lu commencé woon di bu yàq démocratie commencé nekk loo xamante ne mën nañ ko woowee jàngoro mooy su ñu demee élection comme élection locale bi 2014 yi 2700 listes la ñu amoon bi ñu demee élection législative yi gis ñu ne am nañu quarante sept listes ñu ne suñu continuer noonu lii raam xam nañ ci ñàkk bi la jëm su suñu continuer noonu du baax ci démocratie bi soo demee élection Sénégal am cinquante candidats wala soixante dix candidats comme ni ñu ko gisee ci ay dëkku Afrique yu bari blocage la indi ay problème la indi ñu gis nag ne Sénégal fi mu nekk nii amatuñu problème de multipartisme amatuñu ak problème d' accès euh, aux médias amatuñu problème de pluralisme amatuñu problème alternance amatuñu problème élection mais problème bi ñu am lan la mooy candidature dañoo bari bari euh, candidature ni mu bëree nag dafa commencé di yàq démocratie boole ci loolu dafay cher trop pour contribuable pour joxe benn exemple rek élection législative yi mujje mi ngi jar mi ngi coûté dix huit milliards soo koy calculer mooy candidat bu bokkee élection rek état bi dina dépenser trois cent quatre vingt millions pour yow. loolu xaj na feneen moo tax ñu ne nañ indi parrainage parrainage bi donc li muy visé mooy léegi sénégalais bu munti nekk soo nekkee candidat indépendant wala nga nekk candidat wu parti politique da ngay dem ci ci ci ci say concitoyen dootul xaalis parce que bu njëkk ba dañ doon wax dañ fixé caution bi dañ ko yokk dootul xaalis du parrainage des élus parrainage des citoyens c'est-à-dire que citoyens ci seen bopp ñoom ñoo la wala parrainé pour nga mun nekk candidat te loolu nag dañ koy def pour toutes les élections et toutes les candidatures tey nag li ñu def loolu mi ngi aju ci présidentielle bi parce que présidentielle constitution moom moo koy traité léegi dañu wax ne député yi ñoo def amendement bi ñu ni di Sénégal soo buggee nekk kandida à l' élection présidentielle da ngay am minimum zéro virgule huit pour cent du fichier électoral général maximum un pour cent loolu soo ko amee mën nga nekk candidat waaye ñu tamit di la signal dañu war a dëkk au moins dans cette région juróom-ñaari région ba pare région bu nekk war nga fa am deux mille signatures loolu soo leen ko gisee dañu bëgg rek candidature bu mun am mu am nekk une candidature bu am assise nationale candidature boo xam ne dafay nekk ci région yëpp lool tam li mu indi mooy dafay rationaliser candidature yi dootuñu dem élection léegi risque ku dem élection am cinquante candidats loolu dañ koy wàññi mun nañu jàpp ne léegi suñu demee élection Sénégal kat candidat yi dootul bari su ñu demee élection léegi élection yi dootul cher comme ni doon chéré su ñu demee élection léegi citoyens yi dinañu gis ay euh, débat électoral bu intéressant dinañu gis ay candidats yu am solo dinañu gis sax léegi offre yi. monsieur le ministre am na jumtukaay yu leen mën a may ñu compter signature yooyu. loolu amul problème parce que xam nga Sénégal commencé nañu di vérifier ak di authentifier signature en 1993 ci la ñu njëkk a def candidature indépendante 10 000 signatures. boobu Mamadou Lo moo nekkoon candidat bi ñu ñëwee 2007 tamit am nañu ay candidat 2002 2012 la ñu amuloon candidat indépendant mais chaque fois loolu du lu bees Sénégal donc am ay candidat indépendant vérifier signature yi loolu posé wul problème beneen bi nag analysé nañ ko léegi Sénégal am na ñetti téeméeri parti politique bu fekkee dañ loi bi li ko tax a mooy rationaliser espace politique bi loolu la mooy si sa xalaat. non loi bi en réalité rationaliser wul espace bi de façon générale dafay rationaliser participation électorale bi c'est-à-dire que léegi li ñu bëgg rek mooy su ñuy dem élection législative dootuñu am 47 listes donc ñu rationaliser élection ndax parrainage bi su ñu demee élection présidentielle. ñu rationaliser participation bi à l' élection présidentielle ndax parrainage bi su ñu dem local dootu ñu am deux mille sept cent listes ndax parrainage bi donc li ñuy def mooy dañuy njëkk a rationaliser participation bi à l' élection su ñu paree nag ci loolu dañuy na nag loolu chantier bu am importance pour gouvernance politique ak démocratique bu Sénégal mooy nag ñu song nag chantier wu rationalisation des partis politiques. dafa laaj waxtaan dafa laaj waxtaan dafa laaj consensus parce que mënoo fekk nit bu am parti ñu nga nekk dong koy tas. Euh, a ñooy gérer suite bi. loolu laaj bu am solo la parce que fi mu nekk nii tey ni ma ko waxee woon euh, état bu révision constitutionnelle révision constitutionnelle moom moo posé principe parrainage bi moom moo fixé seuil waaye lépp li nga xamante ni après affaire modalité la ci code électoral bi lay nekk yi yi ñu koy doxalee. loolu ci code électoral lay nekk code électoral nag ministre de moom moo koy défendre révision constitutionnelle ministre de la justice moo koy défendre donc ci ki fan ministre de l' intérieur président de la république nee ko nag euh, mu yaatal waxtaan wi ak parti politique yi ak société civile bi ba ñu waxtaan moo moom nag mooy ñëw indi code électoral bi fii défendre ko te ci biir code électoral boobu nag la ñuy préciser modalité wu mise en œuvre. dernière question rek dernière question ci arrestation yi y' a beaucoup de leaders euh, politiques qui sont arrêtés ci euh, affaire euh, procureur de la République certainement ci ndigalam toute la journée fii laa nekk. tout non toute la journée ci laa nekkoon donc xaw ma xew bàyyi ma dem sama bureau xool xew. Pape Ngagne kon nga dégg noonu Ismaïla Madior Fall ñu xawoon ko cokkaas ñekk ci dernière question bu ndax comme mooy ministre de la justice nekk kilifay procureur de la république te ku ne xam na ni tamit ñu doon manifester ñi ngi ci commissariat yi ñu denc te bu leen fa dencee ci ndigalal boobee procureur la ñu bëggoon a xam rek fay mais nee xëy na bu demee a a tuuri fii assemblée nationale euh, fii moom fitna amu fi woon nag li wër assemblée beeg yu ne mel ndax rek dispositif sécuritaire bi nga xamante ni kilifa yi teel nañ koo jël ci suba ba léegi ak barricade yeeg yu ne mel ba léegi sax ñoom bougé gun benn mètre ñoom policiers yi ci biir moom gendarmerie ñoo yoroon sécurité bu mel ni kon wute ak li nga xamante moo fi xewoon ci ay jamono ñu koy wax euh, vingt trois juin nga xamante ni assemblée bi oto yi noonu ñu leen di sant di leen rek xam naa di leen ci ak ay réaction en image allah. voilà jërëjëf euh, Chérif euh, Dia euh, Fadel am na foo tolloon mais man dafa am benn question rek bu ma si bëgg a yokk li xewoon juin daf ko wax. waaye boobu bi mu amee tàkk-tàkk yi am na coow li am na retiré nañu loi foofu la mujj mais bii tàkk-tàkk amul fitna amul deret tuuruwul mais loi bi passé nañ ko par force. Mhm. nan nga gisee ñaar yooyu. xam nga démb am na ay journalistes xam nga barki démb ci benn conférence de presse journaliste yi may laaj ne ma ndaxte da ngeen ni dafay amaat beneen 23 juin ma ne ko askan nu lëmb kenn du ne ko da koy tanil ni muy doxale 23 juin datam la beneen jour beneen datam la xam nga tey jii nekk naw nekk na date boo xam ne sans sans débat bi bien que arrestation yëpp tey ji histoire Sénégal jàpp na ko mm-hmm. ne nguuru nguuru Macky Sall bi mu ñëwee ci loi sur le parrainage daf ko forcé jàllale ko sans. débat sans sans débat ba pare jàpp leader politique yi ak leader de la société civile tëj kaso gi ba pare ne kenn du wax loolu histoire jàpp na ko. loolu benn la beneen bi mu nga xam ne bëggoon naa ko wax sànq ci xam nga ñu ngi wax nit ñu naan wuy baax na baax boo xam ne bu ñu amoon temps wax ko mais xam nga ñàkk indi débat lan lay indi. loi bi lu mu baax baax baax li ñuy wax nii man dama ci gis ay fitna ay jéey yu mu a yee ci réew mi. Mm-hmm. ma jox la benn exemple kese. xam nga dañu ne boo amee nombre de signataires dafa nekk ci sept régions mais Papa Ngagne am na région yu nekk à cheval mun nga ne am sept région du sud contre sept région du centre contre sept région du nord maanaam ñi nekk ci suufu réew mi ak ci digg bi ak ci kaw mun na génne réew mi mun na génne trois candidats mm-hmm. ci sept blocs ñu affronté wu. parce que tey man sama set sama set signature bu dee xëy na soose laa mun naa ko dem wala ma nekk ay jola yi ma sësal ko fële bu dee olof laa fii laa yem diggante ah, yu bokkul ci 14 yi kenn précisé wul kenn mais sept régions différentes mais dans un bloc sud est ou nord foofu laay waxee pour man bàyyi wuñ ko xel xam nga boo ne woon 14 régions sax auto di assurer cohésion nationale mais seen sept régions yi ñuy def ci parax parax ak yàkkamti suñu cohésion nationale bi nga xam ne dafa cher ci Sénégal te ñu ngi koy tabax te sotteegul benn ñaareel bi loi bi baax na xam nga Ismaïla ma yor danaa la suma professeur la ma ma jàngal ma ma yoroon TD en droit constitutionnel travaux dirigés fii Cheikh Anta Diop dafa am lu mu wax ni sànq damay reetaan parce que daf ne euh, pour ñu rationaliser candidature yi def nañu ko léegi danañ dem beneen chantier bu gën a mag. muy les partis mhm. mais partis politiques yi ci cosaanu démocratie sénégalaise wax na ko sax sànq sans s'en rendre compte. Mhm. le problème des candidatures c'est d'abord le problème des partis. Mhm. bu parti foisonné woon la candidat yi foisonné wu. donc booy rationaliser dañuy dañuy dafa dafa mettre la charrue avant les bœufs nañu wax lan lay jëkkalante. bu fekkee ne dafa bëgg a rationaliser espace politique bi ci candidature yi. candidature yi conséquence la du cause. cause bi mooy parti politique yi. cause bi mooy pour lan mu la raison loolu kañ dañu war a song ba pare bu ñu ko songee. d'accord de fait. Mhm. candidature yi dafay dina dina rationaliser wu. beneen bi ci topp. waaw mën nga nga jeexal foofu s'il te plaît waaw xam nga bu ñu ne. Euh, oui loi bi baax na defar nañ ko kii mais parce que euh, dañ amoon 47 listes mais nañu wax lu tax Macky Sall yàkkamte mook ay ñoñam yàkkamti gi man je me pose des questions comme que waxuñ ma permettre ñu ma le débat ni sama assemblée ñu ñu fa tegal nii ñu jël temps wu débattre ci. Mhm. ni comme amuñ loolu. tey jii mun naa ne rek tranquillement en tant que sénégalais constaté naa ne Macky def na référendum lu musta am Sénégal yées président teg référendum te amul plébiscite de 90 pour cent dafa wàcc ba 65 pour cent lu guléet la noo am fi 25 pour cent guléet. 63 pour cent 63 63 waay guléet te sax loolu ñun xam nañu xëcc nañ ba sonn. deuxièmement législative bi guléet président Sénégal dem élection te sénégalais yi bëgg a voté mënuñu voté ndax jotuñu seen carte. wala bu ñu jotee seen carte xamuñu fi seen bureau. bañ dem jël ay ancienne carte d'identité wala ay récépissé di ko fa day guléet te foogoon nañu romb nañ ko depuis ay 2000 ak constitution ñu génnoon ak dakaar ni ñu ko xaw a foqartee ba jot ci donc te malgré tout boo ko méngaleeg présidentielle jàllul premier tour. d'accord ah donc. su ma amee même configuration bi su ma demee fële président yi ñoo doon leen. d'accord merci beaucoup Fadel Fadel c'est bon te ci dëgg-dëgg loolu lay niru xam nga Pape la ngeen. waaw mais ma terminer ma daaneel ma daaneel. mais baal ma rek nga ma daaneel xam nga lu ma métti. waaw en tant que simple citoyen. bu bokk ci benn parti. waaw mooy que jëlati nañu suñuy institution. Mhm. di ko régler seen problème mu des ci nguur. d'accord foogoon naa ne jeex na ci Wade foogoon naa ne jeex na ci Diouf foogoon naa ne jeex na ci Senghor waaye ndeketewoo. lu olof Ndiaye di wax Maodo Maodo ma bàyyi la rek dafa am lu mu wax loo xam ni muy pexe coow leeg loi bi yëpp pexe des ci nguur gi la joxe na ci ay exemples yu bëri dégg nga ko lan nga ci mën wax. non dama wax ni xam nga euh, Fadel su ma rek la te yàgg naa noté euh, constance am ci ci combat mhm. xam nga damay wax ni ñun tey heure bii dañu war a sant yàlla. parce démb. on avait entendu le tout et le contre de tout. kon fi mu ne dañu war a sant yàlla. non dañu war a sant yàlla xam nga ndax lan. waaw. Euh, yow ak li nga dégg ak li xew yëpp xam nga man daaw mais ma tuuti ma wax la man 23 juin ñëw naa fii débat. mais waxuñu mhm. mhm. li ñu prévoir woon ak li nga xamante ni sóoroon nañ ko ak li ñu ragaloon. ak li nga xamante ni am na tey xeebu ma li am tey. Mm. ndax bu ñu bundu xatalee benn sénégalais. bu mu munti doon. Ah, bu ñu ko jàppee wala ñu xomba xombal ko. benn lacrymogène bu tàkk rek dama ni benn lacrymogène bu. voilà non dama ne benn lacrymogène bu. très bien benn lacrymogène bu tàkk. waaw mënuma soo nee sant yàlla rek mu jaaxal. waaw si ah, si si si. ah d' accord alhamdulilah s'il te plaît. d' sant yàlla bi. Mhm. mooy di ne que ce que li ñu doon xaar ak li ñu waxoon ak li am cela veut dire quoi xam nga 23 euh, juin. man 24 juin laa judd donc damay fàttaliku toujours 22 juin 23 juin 24 juin démb bi ñuy wax dama ni gars yi mën nañu am xëx-xëx mën nañu am ñu mu naqari ñu wanewu mais on ne peut pas vivre lu jege 23 juin parce que lu xewoon 23 juin c'était comme hier 22 juin je me rappelle ak suñu mouvement euh, euh, gëm sa bopp dañu demoon bi affaire yi tare dañ dem ni euh, seeti les jeunes parlementaires Tafsir Thioye moo leen jiite ma ànd ak suma benn xarit Babacar Diouf on les a trouvés ñëw wax ak moom di def di wax ak moom pour ñu am une posture par rapport à la loi ak jour bi ñu ñu ñu dellu ci ginnaaw. Mm-hmm. pour vous dire que ñi ngi mémoriser wu courant dafa coupé boobu 18 heures. ba 23h ñëw 23h ba 2h du matin 2h du matin le coupant courant coupé bu ko nit ñi génn ci mbedd mi cela veut dire que au-delà du euh, patriotisme constitutionnel bi taxaw nit ñi génn ci mbedd mi au-delà yu taxaw dafa am un mal-vivre que les Sénégalais doon ressentir doon ko wane donc je pense que tey bu ñu ñëwee damay wax ni fi may terminer sur fi may bëgg a wax sur la loi may wax ni ba léegi dara weesul parce que loi bi ñëw na assemblée nationale voté nañ ko. c' un projet de loi une loi ba léegi am na amendement ak discussion yi nga xamante ni mën na am. ci loi bi mais faudrait-il que gis nga Nafi euh, ak euh, nu mu euh, damay bañ xam nga ñun dafa am ñu daloon ñun bi ñuy xeex avance Ablaye dafa am lu ñu daloon mooy di ne on disait tout ce bon ba ci bi ma ci xool juste mooy monument de la renaissance. tey ku ne xam na ni lu baax la woon pourtant rappelons-nous moment bi ñu taxawee ñun ñëpp ñu dressé ñu parce que dañ ñu woon lim fiy def baaxul fétiche la xaw ma lan pourtant tey actuellement ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy visité ay nit ñi ngi nommé administrateur donc dama bëgg ñun ñu am une posture bi nga xamante ni ñun notre génération ñu am une posture bi nga xamante ni mbir luñ ko mën a sauver ci benn situation li ci baax ñu reconnaitre ko xam ni li ci baaxul mën nañ ko defaraat et dama gëm ni man cette loi là jusqu'à présent même bu jàllee à l'Assemblée nationale je regrette une fois pour man Assemblée nationale euh, jalgati ñu forcé wuñu parce que depuis ce matin nag on n'a pas parlé du vote depuis ce matin je me rappelle une dame qui s'appelle député Sabara moom moo njëkkoon taxaw ni loi bi jarta waxtaan bu ñu ko fi voté donc nañ dem donc cela veut dire que depuis ce matin si les choses ont tiré en la responsabilité nag ku gis na ni nana ngi de l'opposition am na maintenant li ma metti man et quand je parle de match de football vous êtes mm-hmm. un intellectuel une intellectuelle vous savez que je donne des images mm-hmm. mais c'est juste pour vous dire ay eh, métaphore la pour vous dire euh, euh, fi may terminer fi may terminer foofu fi may terminer mooy dine que pour juste vous dire que ni man dama jàpp ni cette loi la am na lu mu mën a yokk ci suñu démocratie ku nekk nag ñi ngi ngi seet nan lañ koy modifier ak lan lañ ci yokk. d'accord et puis ba dernière proposition bi may terminer baam ngañ nga baal ma mais on peut dire ñun mais député yi wala mais mën nañ mën nañu discuter on dit écoute nañ wax leen ku am trois députés assemblée nationale mais war nañ la mën a teggil ngay wut ngay wut ngay wut euh, parrainage donc tout est possible dans la discussion. d'accord mais du fait du fi du fait Oumar est-ce que li muy wax nii c'est possible est-ce que li muy wax yëpp <coughs> damay waxee feneen man dama jàpp ne loi bi moom baax na. waa d'accord donc jarul ñu koy laalaat. waaw léegi bu dee laalaat mën naa nekk ndax loolu. mën na nekk laalaat lan nga ñu si beneen révision constitutionnelle. déjà loi bi bu paree nii. Mhm. day dem président dem conseil constitutionnel. Mhm. ñoom ñu xool ndax loi bi ci anam yuñ ko réviser tegu na ci yoon wala déet. Mhm. donc dafa amaat beneen procédure. d'accord pour que nag code électoral bi nga xam ne. loi bee ko taatan kenn sañute na laal code électoral bi te defuloo révision bi ñu def tey ñu dem nag ci code électoral waxtaan ci modalité yi ñu mel ni loi uh-huh. ak règlement uh-huh. règlement mun na am gouvernement bi def ko waxtaan mën naa ubbeeku uh-huh. foofu ci modalité yi mais loi bi moom parrainage man am naa conviction que Macky Sall def na li ko war en tant que président de la République mm-hmm. li contenu loi bi man def naa ci ay proposition mais à peu près li ma waxoon parce que dama ne woon quotient député ci élection bi passé cinquante cinq mille la. képp ku am benn député assemblée nationale na ko député bi parrainé. xam nga loolu bu ñu ko waxoon tey déjà mun naa ne potentiellement lu mat vingt candidats ña nga fa. ku amul député. ñu ne la li sa moroom bi am député wut muy cinquante cinq mille demal nga wuti. cinquante cinq mille. mais huit pour cent zéro virgule huit yi ñu def. day tombé mm-hmm. bi ma ko rapporté. bi ma ko rapporté ci lii. cinquante deux mille la. Mm-hmm. maanaam ñoom gën ñu ñoo wàcc sax man proposition bi ma def alxemes. ci rajo yi ñëpp dégg nañ ko donc man ay demaat ci loi beeg di ko réviser loolu moom man Omar Sarr man d'accord ma ci. parce que mm-hmm. loi bi dama ko gëm muy benn. ki bindu loi bi def ko. gënuma gëm loi bi donc dama war a toog défendre ko comme si président bi nga xam ne ak gouvernement bi ñoo ko teg man noonu laa ko gëmee. Mhm. ci doxalin bi nag loolu mën nañ ci indi ay ay waxtaan. Mhm. donc loi bi jàll na li des kay mooy code électoral bi na ministère de l'intérieur woo parti politique yi. Mhm. parce que parti politique yi ñi ngi wax parti politique yi candidats yi mais boo xoolee quatorze candidats yi yi passé. xam nga wax nga sànq ba ne rationalisation. parti partis mhm. après su ma rakk bi ne parti yi ñooy indi déedéet quatorze candidats yu six rek ñoo ci nekkoon ci ay parti mhm. muy Abdoulaye Wade Macky Sall te ay coalition de parti la woon mhm. Ousmane Tanor Dieng Moustapha Niass Idrissa Seck Amsatou Sow Sidibé ñi ci def ñëpp ay Djibril ngoom ak ñoo ñëpp presque ay indépendant la donc pléthore bi du ci parti yi ci nit ñi bëgg a doon candidat te mu laaj nag sénégalais yi bu ñuy tànn toog seen kër ngoon di seetaan le journal de la campagne Papa jekk na ci sénégalais yi bu ñu leen joxee cër ñu mën a ràññee vingt candidats wala quinze candidats kan lañ ci tànn parce que am na jotub wax ak ñoom d'accord man loolu laa d'accord merci beaucoup Fadel muy ci ci tàggoon ak la ñu jëm ah. ah si vous ah, waaw ci ci mais nga wax non ah. yéen ñëpp ngeen wax ah mais dama bëgg li ngeen di wax yéen ñëpp mu nekkaale ak seen pour que vraiment xam naa ni tonton Oumar Sarr xam naa ni yàkkamti na aussi pour pour dem yàgg na fi. voilà ñun ñun ñëpp ku ci ne am nga yeneen kii. mais Fadel s'il vous plaît ci sa ci sa ci li ngay tàggoo waale. waaw euh, Euh, euh, bu fekkee ne ñi ñi mu wax sànq ne 14 yi ñi ñoo ci am nekkoon ci parti politique. Mhm. la ca des yi dañ demoon abbi récépissé parti politique. Youssou Ndour moo dem indépendant. ak Kéba Kane ñu dem uti woon signature ñu éliminer leen. parce que mooy phénomène bi ma dénoncé. Mhm. dafa am ñu signé ci deux kii mi ngi nii ma bind. xam ne mooy demee donc voilà loolu rek déjà am na benn jurisprudence boo xam ne ñun xaaroon nañ ci sax ñenn ñi ñu wax ci lu leer yaa ngi dégg mhm. grand euh, beneen bi mooy. bu fekkoon ne dañu bëgg rek rationaliser candidature yi. te comme que parti politique yi souvent ñoo leen di porté mais ci référendum bii passé. am na lu ñu ci dugal. ci parti politique yi ndax respecté nañ ko. absolument lan lañ wax ne parti politique war nañ publier seen bilan. seen financement. bu ñu ko respecté woon scrupuleusement déjà loi bi ñu def référendum bi euh, bu ñu ko defoon rationalisé na mais donc bu ñu wax ne tey jii dañu bëggoon a dañu bëggoon a mhm. encore euh, euh, Maodo Malick joxuñ ñu Sénégalais bi amuñu impression que jox nañu opportunité ñu discuter def proposition pour lan bu fekkee ne comme ni nga waxee ne bu ñu demee ci code électoral bi mun nañu ko discuter waat et cetera et cetera pour lan tey jii bu sëriñ si jógee taxaw ñaan clergé catholique bi jëw taxaw ñaan leader d'opinion yi taxaw ñaan ñoom Alioune Tine ndeysaan dama leen yërëm dem nañ fu nekk wër nañ tuuru Sénégal fu nekk dem nañ fa wax pour ñoom ñu ñaan njiitu réew mi mu toog même bu dee ñaari fan ñu waxtaan après ñuy laa ñuy convoqué pour lan bëgg kut këkkut mais par force am naa doole dinaa ko wane beneen bi ngay wax ci ay 23 juin man ngàcca nga laa ma askanu Sénégal man je suis pas du tout déçu par la mobilisation mhm. contexte yi ñuy wax ni yëpp ni mu différent xaaroon nañ non je suis pas du mais du au contraire gis naa nu ñu jógee taxaw malgré tout malgré dispositif policier bi gis naa ni ñu ko defee gendarme ni ñu ko renforcer ñun wàdd avec l'élégance républicaine de dire que ok vous n'êtes pas vous êtes contre moi mais manifestez la àndu leen ak man mais wax leen ko bàyyi ñu assemblée nationale ñu génn dem taxaw fa tax je me rappelle toujours am na image yi ñu ngi fi ba léegi mhm. policiers yi taxaw ni ñu taxaw nii mu ngi koy fàttali léegi Aminata Wade amoon na élégance boobu mais tey may ñu loolu sénégalais yi te teewul génn nañ partout dans le pays. xeex yi métti gàcce nga laamate xam nga lan la garaaw man loolu. je ne ba ba ma gisoon ma sonn ci pour que nguur gi Macky Sall ak ay ñooñam ñu waxtaan avant ñuy dugg déclencher processus xam nga lu taxoon. parce que dama xam lii lan la mën a jur. dafay indi benn tension benn contentieux pré-électoral buy installé wu ba après élection yi. d'accord fitna boobu ñu bëgg a yee ci réew mi lu tax. d'accord lu tax. merci beaucoup yow Macky tey jii impopularité bu mu am. tay jii ak yokk ko. Wade def na 11 ans door ko am ñu bugg a taxaw di comparer 23 juin après 11 ans Wade ak kii defagul sax 7 ans yu mat. d'accord askan bi yëpp ndax taxaw na ko nii di demee merci beaucoup Fadel donc mais may ma tuuti ma terminer dafay dem ba këram. door mën a wax ñu ñu jàpp ba bureau ba bureau wax nga dëgg. daf ne leen ba bureau pour xam nan lay wax ñu ñu jàpp bu njëkk ba de bu ñu manifesté waan mu am ñu ñu jàpp bu ñu demaan ba ngoon ci ngoon gi dañuy bàyyi ñëpp pour calmer tension yi xaw ma nag ñii lan la ñu indi un deuxièmement suñuy rak suñuy xarit suñuy àndandoor les jeunes la yanamaris ñoo xam ne kenn xamu leen dañu jug rek parce que seen démocratie lañu bëgg sàmm ñu bëggoon jug di marché tamit tamit pacifique fépp ci région yi depuis démb ñoom Thiès Saliou ñu ngi leen di xoqatal. Fadel merci beaucoup Fadel merci Fadel mm-hmm. merci beaucoup Maodo. Mm-hmm. Euh, ci lan ngay lan nga am ci loo xam ne moom nga bëgg a. non li may tàggoo xam nga li may bëgg a wax mooy rejoindre ci approche bi nga xamante ni moom la euh, grand Omar Sarr wax ci gëm gu ma gëm ni loi bi baax na. Mm-hmm. une fois encore Pape Ngagne am naa lu mën ma naqari trop li nga ko waxtaanewul assemblée. Ah. te loolu kenn mënu ko dindi dafa wàññi sax dafa perturbé sax man samay plan de comme su le plateau parce que bu ñu fekkonte ni heure bi ñu ngi waxtaan ñuy dem di génn dinañu dem ba xam ni gis nga euh, man li ma jàpp. Mhm. mooy pri Macky Sall pour moi c'est un réformateur. pour man dama jàpp ni lii nga xamante ni jël na ko muy sa projet de parrainage la def ko électoralement même ce n'est pas tout bénéfique pour lui c'est-à-dire boo doon seet rek nga ni président daf koy def parfois nañ ñi pour éliminer un candidat mais xam nga éliminer candidat pour lan paam nga noppalewul ña ko faraloon dañuy dem faral keneen. parce que tant que éliminer woo ay votants munoo éliminer un candidat ba mu safee beneen élément bi tax ma xam ni loi bi président de la république jort naa ni amu ci di mu ko def galgal nekku ci amuñu benn intérêt bu ci nekk mooy gis nga toutes les élections wane na ko opposition bi seeni candidat lu mu gën a bari di gën a arranger le parti au pouvoir parce que parti au pouvoir ñi ànd ak moom ñëpp da leen di mobiliser dañ koy voter maintenant dispersion de voix buy am ci Euh, opposition bi lay am imaginez-vous maintenant ñu réduire les candidats am trois ou quatre blocs yu wóor mais di nga xam ni kon président bu ko ko loolu président bu ko am di nga xam ni bési góor a koy bay donc man li may wax te duma ci découragé mooy di ne que je suis d'accord avec Oumar Sarr que une loi est bonne mais une loi elle n'est pas tout à fait bonne à la fois elle ne pas tout à fait mauvaise man dama gëm ni que am nañu des euh, espace de discussion yu ñu mën a jëlaate euh, sentiment wu nit ñi pour régler ko pour réduire au maximum. Mhm. les le les les les les ñi nga xamante ne les les les les contraintes. sur le plateau profité ci gërëm la. waaw voilà euh, na fi Pape Ngagne may ma rek euh, une minute. gis nga dama bëgg wax ah ñi ngi tudd car bloquant bon ou mauvais mais car bloquant par essence vote la. Mhm. dañu wàññi rek le nombre c'est le peuple. qui seul mooy dem voter dugal mhm. bulletin moom ci urne ku am plus de vingt cinq pour cent yaay dem second tour mais lii xam nga lan moo ci graaw on n'a pas la certitude aujourd'hui du contrôle du processus électoral du fichier parce que euh, Fadel ñaata nit nga xam ñu ñu am seen carte d'identité nga dem ci bureau de vote bi ñu bu ñu demee ñu ne leen seen tur nekku fi parce que le fichier est contrôlé par le ministère de l'intérieur ci projet de loi bi dafa am leneen lu ñu ci dugal loo xamante ni tey ji élection yëpp dañ ko centraliser intérieur ndax nit ñi xam nañ loolu et le problème de l'effigie mi ngi ci donc projet de loi bi dañu gën a wax ci parrainage bi mais xam nga lan mooy problème bi non Macky Sall yëfu bolchevique la ñu indi tey jii du de oh, bout en <laughs> de bout en bout il veut contrôler aujourd'hui les candidatures parce que yow bu fekkee ni que tout est centralisé au ministère de l'intérieur Fadel Barro yow nga dem euh, tey jii ñu euh, signal nga ma ñu dem ministère de l'intérieur dugal parce que ce sera informatisé hmm. dugal gisuñu la ñu ne la nekkoo wala ñu dindi la loo ci mën loo ci mën dañuy toog di taal dëkk euh, bi donc c'est ça la gravité de la loi ma bëgg wax ni Keba kenn ak Youssou Ndour c'est au niveau de Thiès qu'ils ont eu des problèmes parce que dañu am ñoom ñaar ay nit ñu signé fii signé fële looloo invalidé seen seen liste ñoo ñu signé ci Keba ngi kenn signé ci Youssou Ndour ma bëggaat wax leneen li mën a régler problème bi aujourd'hui mooy bulletin unique bulletin unique mm-hmm. maa ngi liir benn rapport PNUD mu ne y la que le Sénégal le Gabon et l'Algérie qui refusent d'expérimenter le bulletin unique xam nga loolu bu ñu demee Gabon Algérie ñun rek en en en en en en Afrique francophone donc Euh, tey jii problème bi mooy bulletin unique mënoon na régler lii rationaliser parti yi bu ñu toppoon li texte yi wax ministère de l' intérieur mais le problème serait réglé parce que bu ñu bàyyiwee à 100 140 je crois lu ko indi 200 du ñoom ñoo ko joxe. Euh, euh, liste yi ñuy wax di jàpp sénégalais yi sonal leen naan liste yi dañu bëre woon ñoom la se ñoom ñoo financé ay liste ndax ñoo seetaan un des candidats mu taxaw ci tele bi ne Macky Sall ko financé listam ñëpp seetaan nañ ko Serigne Mbacké Ndiaye ah moo ko wax ci télé bi ñëpp di ko dégg donc dafa yokku dafa yokku liste yi parce que système de vote yi bokkul mhm. comme bële Euh, dafa waxoon dafa bëggoon émietter électorat opposition da ngay yokk liste yi. Ah, bii nag bii nag bu kii bë euh, bëre. candidature yi day dem deuxième tour. merci beaucoup. te te te nag ma bëgg daaneel rek baal ma ah, lii man dama lay damay wax au nom de fi ma bokk. wax wax wax bi dañuy tàggatoo euh, lii ni que les gens ne se trompent pas yemul fii. d'accord merci non je vous en je vous en prie Fadel. non je veux dire que les Sénégalais se il va retirer le projet de loi. non je vous en prie parce que Macky mi ngi ak Macron ak ah, Alassane Ouattara di lijjanti ñuy dévaluer franc CFA pendant qu'on son pays s'il te plaît Fadel baal ma euh, euh, bi ma toogee fii ba léegi. voilà mhm. man Sénégalais yi laa doon waxal. Mhm. Mhm. ma leen di wax ne. opposition bu leen nungu ñuy sànq seen doom yi. xañoom bu ñuy dem marche wala ñuy def sit-in du yóbbu seeni doom du ñu yóbbu seeni. jabar maak sama yaa may dégg. félicitations lenn loi bi am na ku ne sañ ngaa manifester. Mhm. ne d'accorduma ci mais manifester ak bëgg taal réew kooku ñaari mbir la yu yoo xam ne dañ leen di làngale waaye duñu benn mhm. ku yàkkamtee falu da nga xam ne Sénégal dafa république la bulletin unique yooyu ñi bëgg delloo Sénégal ginnaaw ñooy wax waxu bulletin unique dañ cee mësoon na dem. non maanaam dama jàpp ne ñun Sénégal. non non pardon non non dama jàpp ne ñun Sénégal dañu weesu. non dañ ko weesu. dañu weesu foofu ñun suñu démocratie ku ko xeewit xeebuwul. man jàpp naa ne ñun ay France ay États-Unis la ñu war a tollool. ci suñu niveau de démocratie. loolu laa bëggoon a wax. di wax ne na nit ñi ànd ak seen xel. xam lan mooy njariñu Sénégal ñu topp ci ñi leen ci jëmee. moytu. ñi leen di dugal ci musiba. jërëjëf euh, jërëjëf Maodo Malick euh, Mbaye jiite gëm sa bopp boo bokk ci mouvance présidentielle bi jiite direction bi di ANAMO. Mhm. moom bokkoon ci débat bi ñi ngi jégalu nag ci xaaraay bi ak itam euh, incursion yi nga xam ni am na fi jóge ci assemblée nationale mais mënul woon ñàkk. Mhm. parce que foofu la information bi ak xew-xew bi waral plateau bi jóge. kon loolu mënu ci woon ñàkk ñu ngi leen di gërëm ci compréhension boobu bu baax. di gërëm Nafi Diallo moom itam bokk ci cadre parti bi di parti démocratique Sénégal ci disponibilité macha allah itam ñuy apprécier bu baax ay intervention intervention am di ko félicité Fadel Barro idem ñi ñu lay gërëm bu baax a baax euh, ci sa taxawaay di la ci encouragé di la félicité bu baax a baax ci débat bi itam euh, ni nga ko comprendre ni nga ci duggee li ñu doon yaakaar ci yow invité la franchement am nañ ko Oumar Sarr itam la même chose parce que moom itam yàgg na fi yàgg nañu mu nekk itam ku disponible du man maa ko wax en tant que journaliste je pense que corporation bi yëpp ñoo xam disponibilité am ak yaatuwaayam ak xalaatam bu rafet ñu ngi lay gërëm bu baax monsieur Sarr euh, présentation bi ni ko Aïssatou Diop Fall tenire di gërëm bu baax euh, ñoom Pierre Da Silva ñi ci jàppee ak cadreur yëpp euh, Mamoudou Ibra Kane moo ko tàmbale woon depuis ce matin xam naa ni ñàkkul yeneen plateau yoo xam ne dina suivre notamment ak El Hadj Assane Guèye euh, kon ngeen resté ak télévision Futur Média ñu leen di jox daje incha allah ci beneen mm, jamono jërë ngeen jëf